téléspectateurs de Prestige TV bonsoir ñu nuyuwaat leen ku ci nekk ci turam ak santam mu nekkaat mbégte ak bànneex gannaaw ba 22h jotee ba teg ñaar fukki simile ak lu teg ñu fas yéene ñëwaat ànd ak yéen tey ci àjjuma ji juróomi fan ci weeru avril atum 2024 comme ni ngeen ko xamee nag depuis ba weeru koor gi tàmbalee ñuy ànd ak yéen ci seen émission bi Prestige. di leen baaxee euh, Gujot, gu jot ci lépp luy sunu ay canal de diffusion Bok na ci yooyee ñi nga xam ne ñoo di suñu mbokk auditeurs yi ñuy déglu sur la 95.5 mu di Prestige FM moom la duppee woon chat. Euh, ndax moom moy département bi mujjé judd ci kër gi nuy tamit ñëpp ñi nga xam ñi ngi bay xel partout dans le monde à travers IPTV fu ñu mënti nek ci aduna bi mën ñoo sétane ñi nga xam tamit ñoo ñuy suivre ci suñu ay plateforme digitale ñomit ñu jox leen seen waccu way nuy képp kuy kilifa diiné kilifa ala fekk baax fi ci biir réew mi rawatina fii ci diwaanu Thiès nuyu tamit ñi nga xam ni ñoo fare fii ci kër gi mu nekk ñii di xëy di daan seen doole ci groupe Prestige nuyu tamit ñi nga xam ni ñoom laay gontandool ngor gu jot eh, ci plateau bi di salon d'honneur salon d'honneur nag ni ngeen ko xamee moo di eh, salon bi nga xam ne lépp fi lañ koy waxtaane maanaam le Sénégal à l'honneur lépp loo xam ni dafa ajoo fekk baax fii ci biir réew mi eh, doore ko ba ci suñu mag ñu baax yi nga xam ne liggéey nañu liggéey bu am solo ci diine l'islam rawatina fii ci Sénégal ñuy ànd ak ñoom ñi nga xam ne tamit ñoo di seen ay mbind seeni ay jàngale waaye tamit seen i ay taxawaay ci diiney lislaam ñu toog fi astuut am lu ñu ci jukki pour fas yéene ko baaxee askan wi duñ ci am lépp loo xam ne actualité information rawatina nag jamono ji nga xam ni mois de mars bi wala 2024 ba mu tàmbalee ba tey lu ci bari di xew ci réew mi taarix bu bees buy bindu ci réew mi loolu tamit euh, lii di salon d'honneur demul mu des ndax chaque fois

ci euh, njiitalu euh, kii di le président Bassirou Diomaye Faye indi ci ay laaj rupture wala ndax lu ci bari ñi ngi ko doon xaar ci wàll woowee waaye tamit li fi jot a jaar ci fan yi ñu génn dañ toog fas yéene ko waxtaanee ànd ci ak yéen ci noonu nag la ñuy amaatee ki tamit euh, lii di tiis di sëgg groupe prestige di am njaal jëmale ko ci ki fi nekkoon tamit njiitu jëwriñ yi di Mouhamed Boun Abdallah Dionne génn àdduna tey di ko ñaanal tamit fa mu nekk. gënal ko fi mu jóge yàlla xare ko àjjana noonee tamit la ñuy amaat une pensée à notre grand frère nekkoon fii ci kër gi tamit di Ibrahima jàlloo ñu gën ko xam ci Diallo moom it di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana noonee nag lañuy def daal di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñoo fekk fii ci plateau bi comme à chaque fois euh, tey nag mu nekk tamit benn casting bu ala daawme ci noonee la ñuy nuyu tamit ki nga xam ni a chaque fois dañuy ñëw benn benn mu ñu ñaanal ñuy dellu ci benn benn ñëwaat nañu tey Eh, ci benn benn sante ko sunu borom bay fasé né tambali nuyo ci benn benn ci benn bobu lañu ñëkke té modi mom serigne fallu lañ koy wax ndaw ismaila ma ngi lay fay nuyo <clears throat> di la nuyu di euh, sant sunu borom bu bah baax ni ko waxé euh gannaaw bi ñu mayé ñu ñëw benn benn yexi fi benn benn euh, di ko ñaan tamit euh, mu jàppale ñu ba ñu wàccaat benn benn ba mun fi dellu si waat sunu teyu bakkan Euh, di nuyu mbokku euh, téléspectateurs yi mbokku auditeurs yi ak euh, internautes yi ñuy suivre guddi gu jot ci seen salon d'honneur nga xam ne ni ma koy waxee toujours c'est un véritable salon d'honneur ñuy am honneur toujours di recevoir des personnalités ñoo xam ne seen xel dafa màcc ñu leen di sant bu baax ci fekk si bi ñuy fekk si dinaa la bàyyi la primeur nga présente leen Euh, di nuyu mon euh, ami gajoon naa ko gis lool namm naa ko Isaac Tapa euh, di nuyu Alimatu sama jigéen bu joomul ñaaw bi sow pulo jéeri temps yi la doon na ma indil soow mais gëj naa indi soow iso maa ngi lay nuyu di sof rek sama wax ci ni nga ko waxee di jaale Sénégal gépp di ñaanal l'ancien premier ministre Boun Abdallah yal na ko yàlla xare àjjana oyofal suuf ci kawam euh, di ko jaale toute la nation euh, sénégalaise euh, di feddliwaat sunu njaal ak sunu ñaan jëmale ko ci sunu xarit Ibrahima Diallo mi nekkoon fii ci ci kër gi du ñu dakk di ko di ko ñaanal yàlla xare ko àjjanay si Izo am mbégte gu mag euh, di àndaat ak yow ci salon d'honneur. jërëjëf doyen Serigne Fallou Ndaw ci ànd bi tey tamit comme niñ koy defee euh, fan yi yëpp dañu àndaat ak yow ci waxtaan wi euh, noonee tamit dañuy am. Euh, gan goo xam ni euh, moom it euh, miin na kër gi ndax bu mu fi géejee moom it yàggul dara doyen fàllu lépp lu jëm ci tamit wàllu politique fi ci daan Thiès moom ci taxawaay bu am solo waaye tamit am xam-xam ci wàllu ni mel bu ñu koy tuddee nag Serigne Modou Thiam ñu gën koo xam ci Thiam la médiateur bokk ci communication mouvement Siggi jot na ca bopp président Abdoulaye Dièye moom bokk na tey ci ñu dalal ci àjjuma ji fas yéene si xëy waxtaan Thiam ñu nuy la bala nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi.

ndax ji yëg nañu gën àdduna vraiment jàll nga xam ne ku mës dugg fi rek moom ngay njëkk a jot. Mhm. doon ko laa biir doon la indike ci accueil bi ñu ko yàlla xare ko àjjan. am nañ ci yaakaar ndax weer bu sell la dëddu noonu itam nga baal ñu ñu jaale Sénégal yëpp. Mhm. Euh, suñu xarit suñu papa muy le premier ministre Boun Abdallah Dionne nga xam ni wax dëgg yàlla bokk na ci ñi nga xam ni.

la perturbatrice tey yaa ko fi toogal ndax ay ruube moom ruube wu la yow ruube maan nga ma nuyu la ma nga nuyu bokk tey spectateur maa lay ziar bu baax lay fàttali mm-hmm. mu nekk jamono ji Ismaïla di nuyu Sénégal yëpp nuyu waa Prestige mm-hmm. di nuyu euh, waa jaare comme ni ko ñëpp defee di ko di ki nga xam ne moom moo di euh, suñu suñu waay suñu suñu xarit euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Diallo ñu koy jaare njabootam yëpp di ko jaare waa Prestige gépp Euh, nekk nga xam ni amoon na tolluwaay bu sori euh, ci ñu te euh, ba léegi sax mi ngi fa. Mm-hmm. donc ko teg wala fa la toll ba di ko ñaanal rek fu mu jëm gën a ko fu mu jubi di ñaanal yàlla tamit defal di jaale tamit Sénégal gépp mm-hmm. ci ki nga xam ne tamit moom la ñàkk ndaxte moom mi xam ne moo di Boun Abdallah Dionne am amoon na cofe bi nga xam ne moo nekkoon ci Sénégal ndaxte képp ki nga xam ne rek jaar na ci ak taxawaay boobu mu ak position bu nit yi. Euh, mën a am ci yow euh, bu ñu xoolee euh, rôle bi nga xam ne moom la joué on comprend am na loo bëgg yow ak Sénégal. Mhm. bëgg na Sénégal bëggoon Sénégal jëm kanam. Mhm. tey jii donc c' est une perte nga ne Sénégal képp ñu koy jaaree Sénégal ko jaaree a jege. loolu mooy soo may nuyu waa plateau bi sama doyen Fall donc on rêve des écouges moom plateau saa saa su toogee xam-xam. Mhm. ay dégg moom di nuyu Oly waaye aussi di nuyu Grand Thiam. donc moom aussi encore c'est c'est vraiment un honneur hein. ma bokk ak moom euh, plateau bi donc du luy am saa su nekk waaye aussi di nuyu bu baax euh, monsieur Mboup euh, ça sera aussi bon c'est déjà un réel plaisir di bokk ak yow plateau bi di naan rek téléspectateurs yi voilà salon d'honneur ñëw dinañ et on espère que seen li ngeen di xaar seen attente dinañ ko dina leen ko indi bu baax a baax Ismaël jërëjëf Isaac merci beaucoup ci loolee yow it tey nga fas yéene ñëw ci salon d'honneur

juróomi fan ci weeru avril ci salon d'honneur groupe prestige ci weeru koor gi ñu nuyu la monsieur Bala nga nuyoo ko mbokk téléspectateurs yi. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. di la ziar bu baax bu baax di la nuyu la di nuyu aussi donc ñi ma bokkal plateau bi yëpp. di donc toftal samay kàddu rek ci kàddu yi fii jot donc yi ci njëkk nekk ay kàddu jaale ñu jëmale ko ci waa kër gi yëpp. di ñaan ci eh, Diallo mom suñu borom eh, yeureum ko te djegal ko di ñaan aussi donc euh ki nga xamni ñak nañ ko mu nek un homme politique éminent moy donc l'ex premier ministre donc Mohamed bin Abdallah Dionne donc di ñaan yalla suñu borom mom aussi mu yeureum ko djegal ko waaw di wax ni rek c'est un réel plaisir donc euh, retrouver leen fi, ci salon d'honneur di ñaan aussi lépp lu nga xam ni waxtaane nañ ko fi mu doon njariñ pour askan wi ñuy seetaan yépp donc euh, loolu laa amoon lu ma ci sànni anataana euh, waa ñuy dugg ci waxtaan jërëjëf monsieur Mbop dañ dikkaat ak yow euh, comme ni nga ko ci pàcc am solo ci waxtaan bi ñu amal tey am na tamit ku nekk ci ñun sa xam-xam mbuub màcc jëm ci wàllu yoon

Euh, tonton Père Fall ni ko Mati di waxee di ko nuyu bu baax baax di nuyu tamit suñu invité yu tedd yi ñu sekkal plateau bi di leen jox ñoom tamit ku si nekk sa wàccuwaay waaye di nuyu mon ami mon frère Isaac Dapa comme ni nga ko waxee rek juumoo moom moom ruube la nekkee si kër gi bàyyiwul kenn jaamu waaye borom baax la di nuyu waa prestige bi yëpp jël nuyoo bi teg ko suñu loxo PDG Pape Doumbia naka noonu it ñuy delloowaat rek di ñaanal ak xalaat. saa su nekk suñu papa jooju suñu nijaay bi fi wàññeekoo li bërki démb muy jàllo di ñaan si barke weeru koor gi ak fukki fan yu mujj yi bu fukki fanu alxuraan yàlla na ko yàlla yeesalaat njéggal fi mu nekk gënal ko fi mu jóge oh. naka noonu ñuy jàll tamit Sénégal bi yëpp te tiis dalaat na suñu kaw te comme ni ko yàlla suñu borom bëggee rek saa yu tiis dalee rek dañoo war a sant yàlla noon it saa yu mbégte ñëwee dañu war a sant uh-huh. yàlla ñu ko koy santee bu baax a baax di ko ñaan ñu nga xam ne ñoo ñu jiitu ji yàlla moom suñu borom subhanahu wa taala mu wàccee si ñoom yërmande àtte leen si yërmaandeem fi ñu nekk gënal leen fi ñu jóge ñun ñu fi des tamit ñu yàgg fi di leen ñaanal te mm. saa yu ñëw mu fekk ñu si li ko uh, soob mm. incha allah rabbi yàlla nañ ko yàlla defal mm. di nuyu ñi nga xam ne à chaque fois bu heure bi jotee rek dañuy toog fu ñu mënti nekk di ñu seetaan sur la prestige tv ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñi safoo tamit di ñu see uh, di ñu déglu sur la prestige fm 95 point 5 chat bi ni ko Ismaïla di waxee yéen tamit ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye du ñu yi ba xam ne bi ak suñu plateforme yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di nuyu tamit waa Lansar automobile ak euh, ñi nga ne di nuyu bu baax. nuyu sax nga ne ngay bokk cosmétique ak nga ne di portable. ak EDM établissement marché bu baax boutique ak Serigne merci beaucoup di nuyu bu baax waa Bazar au Kàngam nuyu tamit seen teg seen Grand Place ak waa Thiès Avima nuyu nañ tamit petit mi wàllu ndox mi ci kër gi notre ministre de l'hydraulique ci plateau bi di ko nuyu bu baax Oulimata tey da ngay jaay wala da ngay maye. fi nga daanelee ci côté rek laay mm. daal di yëkkatee. parce tey loo wax hydraulique. waaw ministre de l'hydraulique ah, kon ndox mi la ñu jëm. ci ndox mi la ñu jëm. macha allah. Mm-hmm. waaw naka noonu tey dañoo fas yéene àndaat ak ki nga xam ne au kàngam parce que defoon nañ première étape def deuxième étape. Mm-hmm. te newoon naa la processus la. tey nag dañuy attaque trois derrière yi. Mm-hmm. parce que deux la woon mais ajouté waat na ci trois beneen boo xam ne moo ngi woon làkkatu. naam nit ñi xam nañ ko sax mais tey dañ koy gën a fësal. tey nag Ismaïla Uh-huh. dañuy dem ci bi nga xam ne rouge la. Uh-huh. parce que rouge yi euh, deux façons la. aussi tamit euh, degré bi bokkul. Uh-huh. parce que am au eau pH 9 9 0 tey moom le ñuy njëkkee ba mooy rouge simple bi. boobu nañ naan il s'identifie par l'étiquette rouge. cette eau permet aussi de donner. un équilibre acido-basique à votre corps. et lutter contre le stress oxydantif. Oh. Elle aide à renforcer votre système immunitaire et fortifie oh. vos cellules face aux toxiques. Oh. Madame, ndox bi tamit que euh, ji euh, jëlee xam nga dit bleu blanc bi. Uh-huh. boo jëlee bleu blanc bi. ba eh, ba mu commencé la raxas dindi stress bi. Mhm. dindi toxique bi nek sa yaram ak effet indésirable yi. Mhm. so paree da ngay jël blanc bi. Mhm. moom la ñuy indi woon keroog mu daal di lay lenkali ba nga set. tamit da ngay jël rouge bi mais rouge bi boo ko jëlee da ngay maintenir. rouge bi moo lay maintenir. te rouge bi Ismaïla ni nga ko waxee rek ci kii bi. doo ko bokkul ak di jël di dem hôpital. parce que déjà. ah ñu ngi ma ci ngaw ci ngaw teel ci kër gi. pourtant dafay ci wax <laughs> waaw au dafa am maanaam c'est c'est li li ma li li ma li ma ci jot a gëstu. Hmm. keroog benn ingénieur wax mu ne ndox mi c'est-à-dire que euh, yi nekk ci suuf maanaam yi yi ànd ak ndox mi. Hmm. maanaam dindiwuñ ko. léegi nag ndox mi day am day am moo tax keroog bi ñuy def làmp yi. waaw muy muy muy muy tàkk. ku donc loolu la ma la la ma jot a expliqué donc c'est quelque chose boo xam ni dafay am benn. ben ben aspect curatif boo xam ne da koy mën def ci sa yaram parce que aussi ndox tamit fa mu xam lu dugg ci biir moom du génnaat day yàq wala mu defar ak loo jël ci jël muy ndox muy a des conséquences positives ou négatives selon la ngay jël moo tax tubaab buy lekk wala buy naan day lijjanti ba xam lan lay dugal ci biir bii la raw kaso ma dolli la si aussi gis nga kérok expérience bi xam nga daf ko def ci yenn ndox yi mhm. euh, lampe bi mhm. xam nga waral ndox ci dafa ndox boobu dundatul. moo tax léegi am na foo xam ne won même euh, appareil bi lay jël daf ko ci pomme wala banane. nga gis lampe bi day tàkk. parce que pomme ku ko xam day xam ne vitamine C. de même que banane aussi wala orange dafay am vitamine C maanaam énergie boobu nekk ci ferñeent fruit yooyu ferñeent boobu moom mooy nekk ci ndox bi. moo tax boo ci defee appareil boobu automatiquement énergie bi day ñëw moo tax ngay am lumière bi. maanaam léegi tamit euh, euh, nu mu tudd sax rouge simple bi. Mhm. Ismaïla yamul foofu tamit. Mhm. maa lay wax ni boo koy jël dalay maintenir. Mhm. doo jaabante hôpital lu bëri. maanaam day dooleel sa système immunitaire quoi da koy. li ñu doon expliqué noonu. moo nekk noonu expérience bi. day dooleel sa euh, sa système immunitaire. en même temps aussi day booster sa potentiel hydrogène. loolu moo tax da lay tout temps en bonne santé. nga sawar. nga sawar ba pare am wér gu yaram. <laughs> hôpital di la nam <laughs> nga sawar. <laughs> da ngay sawar da dëgër. ndox mi kay moom. waaye Fallou jam ngeen wutal ci xalifa parce que. dina soxla ko loolu incha allah ñëpp a ñëw incha allah. ma doon wax naan euh, day booster li nga xam ne moo di sa potentiel hydrogène loolu mooy tax feebar yu bëri dootuñu la yab. Mhm. moo tax sa dem hôpital day wàññeeku. am na solo waaw. Mhm. léegi tamit day xeex contre virus yi nga xam ne dafa fekk dafa fekk sa yaram yëpp. Mhm. ba ci coronavirus bi. xoolal rek avant may jàll Ismaïla li ma la doon wax léegi si pomme bi ak banane bi loolu la nekk noonu di démontrer. parce que yooyu dafa ànd ak ab ferñantam. moo tax bu ci branché appareil bi day ñëw par rapport ak beneen ndox bi nga xam ne ñu ngi koy consommer fii tout le temps fekk eau morte sorte ok c'est pas la même chose am na solo mm. euh, boo jógee ci boobu après dañuy dem ci VIP rouge mm-hmm. VIP ouais, VIP rouge mm-hmm. ba d'un dem ci VIP rouge bi boobu que euh, degré bi moo gën fort fort parce que 9.5 là. 9.5 là. en même temps Bobo day booster sa libido ok Bobo, parce que léegi comme nous, ma ko waxee woon keroog ñu bëri ñoo ngi euh, problème faiblesse sexuelle mm-hmm. parce que les bi ñuy lekk

Oui, docteur Sarr, merci. <laughs> <laughs> léegi comme ni nga ko waxee noonu boobu moom mooy terminus. Mhm. boobu moom munoo ko naan di am benn jafe-jafe parce que li ñu doon wax ci 1 ba 3 yëpp moom loolu la tënk. muy quatrième bi. Mhm. yemul foofu tamit dafa am eau boo xam ne destiné wuñu ko c'est pas buvable. Mhm. mais c'est euh, esthétique la. maanaam comme ñi nga xam ne dañuy am ay taches kanam. di am ay bouton di am ay acné di am ay taches noires. Mhm. ndox bi da nga koy jël trempé ko di ko nettoyer sa kanam. macha allah du coup da koy nettoyer bu mu set malheureusement amuñu ko nii pour prévu wan leen ko. Mhm. mais boo leen demee ci dépôt bi di ngeen ko fa am wala boo leen wootee ci numéro téléphone yi aussi di ngeen ko fa am. Mhm. boobu dalee nettoyer bi da ngay mel ni daal maanaam kuy sël moo lem. wala sa kanam ku ñu def lem boobu loolu mooy utilité am. nee na mooy nekk ci benn liggéey bu am solo mooy livre bi nga xam ne moo ngi koy bind. jëm ci wàllu ndox jëm ci wàllu ndox. ak i xar baaxam ak i xar <laughs> parce que comme ni ma ko waxee woon keroog tout les zoo mhm. na ça vale pas te ndox yëpp ngay naan comme tamit suñu jëlee loo xam ne day faj ñu def ko ci loo xam ne si vital kon mhm. macha allah nañ dem seeti ko am na solo te neex na adresse bi mooy fii mhm. Arémam Bamba mooy fii rek boo génnee ci deux voies yi deux yi te foo nekk mu jox la numéro téléphone yi nga jël ñu ko donc ñoom ñi ngi nekk arrêt Mame Bamba comme ni nga ko waxee. Mhm. Euh, euh, nu ngi koy tamit tey wala mat a bett nga ma de ah. doon nga ma 5 0 waaw alors ñoom. Euh, numéro yaa ngi noonu mu di 77 335 17 17 wala 77 238 44 77 335 17 17 wala 77 238. 44 13. defe naa lépp leer na. waaw mat na sëkk de. macha allah jërëjëf jërëjëf Sow. yàlla na fi yàgg moom baax na. hôpital moom man kay yow kay. ku moom. man ku ñëw di ma laaj li nga doon wax. dinaa ko kii ci yow. ma rafet waaw parce que man. xam na man testé na mu la moom baax na. macha allah macha allah non man testé naa Père Fallou testé na. am na ñu bëri tamit testé yow que congé <laughs> weer koor bi yëpp maa yow demandoo. waaw garaawul yow nga lijjanti sa bos man sama bos lijjanti naa ko buñ demee rek nga dem. <laughs> booyee boo jàpp <laughs> merci beaucoup. ko jaajëfal bu baax a baax naa leen tamit soo leen soxlaa fi ngeen nekk rek ngeen di toog mu daal di leen livré. moom loolu la fi nekkee macha allah. te ngeen dem nag ngeen xooli ndox bi am na solo bu baax a baax. Ismaël juste di euh, préciser balaa may tàggatoo ko doo tëb tëb rek naan rouge bi. parce que hmm. euh, processus la processus la le fait que ñu toog bés bu ne jox leen benn parce que bu ci nekk dafa doo am noo ko war a jëlee moo tax naka noonu rek ma daal di tàggatoo jox leen dig daje suba incha allah xëy na nag suba su ma ñëwee ma daal di maye hmm. fii ko tey damay jeex gars yi nam nañ maye ah, <laughs> <laughs> incha allah mën naa ñëw leen ba ngeen di leen tàggu di leen jox dig daje bu suba incha allah di remercier nag euh, encore monsieur Diop. Hmm. parce que dafa yombul tey dama xaar bu julli 5 ba pare. ma gàddu sama tissu. dem fekk leen atelier ba ne lii laa bëgg a sol tey. Moussa Diop waaw may remercier Modou ak Bokar ndax dama ñëw fekk ñu teg ñaw jàmbur korité bi yaa ma gën a xam. Mm. ma yëkkati ko ne kii na ñaw jiita kii na mm. dagg yére bi damay defi plateau. di leen jaajëfal bu baax a baax ñu nekk foofu Mbour 3 en face Château d'Eau. are sëñ sa euh, angle sëñ Saliou mm-hmm. dem leen seeti leen boo leen bëggee lu baax am na solo merci beaucoup Oulimata Sow moom la ñuy àndal lu jëm ci euh, wàllu commercial bi ci salon d'honneur comme ni ñu koy euh, rek mu ñëw des fois mu maye des fois mu jaay tay dafa jaay au kàngam la notre ami El di ko nuyu euh, moom it merci beaucoup Chita hawaii bi di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne ji alors sans plus tarder dañuy def rek ben tempo en complicité avec Khadija ak Matal ñu féete

xale yi teg di ndawal yu ne ci kër gi waaye yàlla baax na di leen gërëm mbokk yi daal di jàll rek ci ñaareelu euh, pàcc bi seen émission euh, salon d'honneur mauve foncé jóg waaye mauve keneen la toog Ajaratu Fatou Fall madame Guèye ñu nuyu la bala ñu jóg <laughs> moom respectateur merci beaucoup Iso mauve foncé boo jóg mauve clair toog nga dëgg de. <laughs> Izo merci beaucoup kontaan naa bu baax a baax euh, bokk ak yow di nga xam ni moom moo di plateau euh, salon d'honneur nekk plateau bi nga xam ni ñëpp dañ koy euh, suivre nuyu képp koo xam ne rek mu ngi fii rawatina yow mi borom sañse bu rafet bi macha allah. li moom bu jotoon monsieur Dieng non sañ seeti nga. Ah, sañ seeti naa waaw sañ seeti nga. appel naa la wax sama sama secret. amul problème nuyu <laughs> itam Isaac Dapa ak ki nga xam ne moom moo di tonton Fallou ñoom ñu def liggéey bu am moo am solo ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax waaye nu suñu invité bi suñu invité yi. dalal leen jàmm euh, fi nga xam ne moom moo di prestige waaye dalal leen jàmm fi nga xam ne moom moo di salon d'honneur euh, nuyu ki ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan ci télévision bi ak ñuy seetaan via YouTube wala Facebook ak ñi nga xam ni dañuy déglu euh, suñu auditeurs auditrices yi nga xam ne dañuy déglu via 95.5 prestige FM jaajëfal leen bu baax a baax nuyu sama yaay ak sama belle-sœur ñoom ñu mettel sama princesse bi nuyu itam di gi monsieur Guèye. jërëjëf monsieur Guèye moom it ñu nuyu ko bu baax a baax alors ñu daal di jàll rek ci waxtaan wi comme ni ngeen ko euh, diggee woon dugg rek ci euh, pratiquement euh, njàngatu doyen fallu premier gouvernement sous l'ère monsieur le président Bassirou Diomaye Faye mu ñëw léegi balaa ñuy yéeg ci plateau bi boobu ba tey sax gars yi ñu ngi toog ci plateau mais ba léegi wàcc ñu seen i ay information ndax ku leen gis ni ku ci nekk yaa ngi lañ bët di xool ana ban man nag dama yaakaaroon ni ci kër gi dinañ am ku ñu woo sax consulter ko waaye dinañ toog koon léegi ñu ko continuer jàngat bi alors doyen. Mm-hmm. Euh, ci laaj bu njëkk bi yow laa koy doore boobu ba tey ñu ngi ñu ngi ñi ngi doon topp lu ni mel di ko xaarandi attente bi bari woon na lool ndax bëggoon am njàngat bu njëkk ci li nga xam ni moo di. au gouvernement Boubès, vous président Bassirou Diomaye Faye, 25 ministres, 5 secrétaires d'État, rupture ou non Wow, ils ont... nous avons fait, c'est qu'il y a un peu de temps, parce qu'il a un peu parce que quand euh, annoncé que les Japonais ont peu de temps, mu génn tey su ma ne xaar bi dafa yàgg c' parce que nit ñi ñoo yàkkamti woon <laughs> mais quand même euh, voilà mais mënuñu wax ne ça ça a duré et euh, ma ci njëkk a jàngat peut être ça a été étudié minutieusement mm-hmm. euh, moo mu euh, laaj bi ngay laaj ndax rupture ou non man bon euh, effectivement pour man am rupture quand même liñ daan faral di gis ak gis na 25 euh, ministres nous ko digone aussi dafa ci euh, rupture yi euh, depuis bi force est reconnaître que yu bari ñu ak askan wi ñu ngi mm-hmm. ça vraiment il faut le dire ah, le président qui a démissionné de son poste de secrétaire. Mm-hmm. bokon na rupture euh, demander aussi aux autres de faire la même chose bokk na ci euh, rupture 25 euh, ministres et le choix aussi rupture quand on nomme un, général au poste du ministre de l'intérieur rupture si on sait que à euh, na fi mais gëjoon na aussi tabam fi am tamit c'est parce qu'il y avait des contestations des problèmes politiques ñu jël en général tek ko mhm. euh, mais après bañ le soir dellu siwaatoon nañu sur des ministres de l'intérieur yo xamné le côté politique avait dominé mais mhm. ñom bu ñu ñëwee wat en général à ce poste là dañuy japp ne am rupture mhm. buma jangaté aussi euh, ministres ministère ñu bëri ñu len fal gis presque presque hein, euh, tous les ministres fañ leen tabb fu xam la soit ils ont exercé euh, cette cette fonction ci lolu ou bien ñu ont won ko lolu beaucoup de ministres mhm. hein, euh, allant du ministre des forces armées ministre de l'intérieur euh, ministre de euh, des sports ñu bari lu ñu lu doon liggéey la mhm. fuñu ministre de la justice lolu aussi mun nañu japp né euh, ci rupture là. Ensuite, euh, dès la nomination des ministres, le Premier ministre a demandé aux ministres, euh, ils nous nommaient, de faire la même chose, de démissionner. C'est mm. yeneen poste Lolo aussi, aussi euh, rupture -le. donc mun n'a pas lolo dans dans sa globalité L'année li nga xam dit tamit mun rupture je ne sais pas est-ce que c'est fait exprès ou non mais en tout cas on constate aussi que le gouvernement dit le nombre de de femmes dafa tuuti par rapport ak li nga xam ne doon nañ ko am. ça aussi au moment où on parle beaucoup de de parité euh, su ñu indilee vingt cinq ministres avec uniquement cinq femmes je crois mun nañu jàpp ne tamit euh, peut-être ñenn ñi dinañ ko jàppee ne lu lu néew la mais man jàppewuma wu ma ko man j'ai toujours di parité man gëw man gëw ma parité li ma gëm c'est la compétence donc euh, am na ci détails yi ci profil yi yow moom dina am bu la ci intéressé moo di wàllu tàggat yaram bi te waaw mu nekk aussi ñu jox ko ab soxna ça aussi nekk na aussi euh, quelque chose boo xam ne dinañ ci attardé bu ne ça alors damay ñëw ci càmm balaa may ñëw ci euh, donc <coughs> Isaac yéen pratiquement ngeen bokkoon mouvement bi nga xam ñi ngi doon Euh, jàppale régime bi fi nek euh, ñu gis premier gouvernement bi nga xamni euh, stab nañ ko tay ministre fess ban jàngat nga ci am. wa ismaël jàngat biñ ci am rek moy gouvernement effectivement buñu don doon xaar jàngat bu njëkk bi mooy dañuy fàttaliku ay jamono président Macky Sall gouvernement tok 24 heures xaw 48 heures montewul gouvernement nous ñu nous au créneau Sénégal gouvernement. le président en passant. Mhm. Bassirou Fay, Fay le premier ministre Ousmane Sonko bi mu nous déclaration aussitôt dans les heures qui suivent. Mhm. dañ leen dañ nous avons gouvernement mhm. réalité Euh, vraiment dans l'opposition ak bu nekk aux affaires bokkul ñoom jël nañ temps defar gouvernement ñu koy rafetlu parce que am na loo xam ne jarul yàkkamti. Mhm. mais njàngat bi rek mooy ñu xam ni taxaw di critiquer mu gën a yomb yor affaire jël nañ plus de temps que jamono yooyu ñu doon critiquer président Macky Sall njàngat mooy expérience day commencé ñëw ni kon. li ngay wax boo nekk toujours bokkul ak boo ñëwee. ñu ñëw effectivement diggoon nañu gouvernement de vingt cinq ñoom ñu nommé gouvernement de vingt cinq yokkaat ci. loo xam dañ koy rafetlu mooy le secrétaire d'État et pourtant du de du président Macky Sall ñoom dañ doon décrier loolu buñ ko indee kon dañu dañ doon décrier xam nañ ni lu mu ñàkk la parce que parfois day soxla ay ay ay ay euh, ay appui mm-hmm. yenn ministre day diis ba nga xam ni foog nga indi yenn yenn yenn yenn yenn poste yenn organigramme yi pour mën ko pour mën koo compléter

dans le système ak ñeneen donc ça veut dire que nous baax la kon mais en tout cas de cause féliciter Sénégal mais bi opposé d'une manière saine maintenant euh, rupture ok pas ko wax parce que tey euh, dañ doon wax euh, président Macky Sall dafa falu euh, la patrie avant le parti. nous mhm. ñu un slogan là. ñii c'est seen gouvernement qui xoolee deux tiers c'est composé des gens du Quand mhm. kon avons wax rupture foofu deux tiers des membres de ce gouvernement c'est des gens du passé ah, moi moi njëkk a fal moo premier militant du passé baax na su fekkee am na profil bi mais démb kat dañ ko xalaboon juste pour dire que nit ki li ngay wax bàyyi ci xel mën na nga rattraper tu peux par par ton par ton passé. Mm-hmm. loolu moo leen commencé moo leen commencé dal mais bu fekkee profil baa ngi fi am nañ compétence bi. nombre bi ñuy wàññi ñu ngi koy rafetlu parce que Sénégal moo ciy gañ limportant important mooy efficacité bi ak ak loo xam ne Sénégal mu na fi mën na mën na ci gañ loolu daal la ñu mooy li di ñaan yàlla mu doon gouvernement boo xam ne yàlla na Sénégal gis boppam incha allah balaa ñuy dugg ci euh, profil yi alors mmh. monsieur Mboup ci euh, yow laay jëm nga nekk aussi juriste membre euh, société civile lu ci bari yéen it ngeen amoon ci taxaw seet lu am ci taxawaay bu am solo ci euh, lu ñu mel gouvernement bu bees bi njàngat lu njëkk li balaa ñuy dugg ci euh, profil yi. Euh, absolument donc li ñuy njëkk a def xam nga mooy lan mooy ñu féliciter leen d'abord. Mhm. parce que ce n'est pas une chose aisée. Mhm. ngay def ay choix. xam nga doyen Fallou mi ngi koy wax léegi que ni sénégalais yi ñoom ñoo yàkkamti ba ñu jàpp ni ñoom dañu toog ab diir pour. Euh, mën constituer leur gouvernement donc man je me dis que ni tey bu fekkee ni da ngay def ay choix yu nga xam ni daf ñu nar parce que man je pense que ni un gouvernement soo ko c'est ba teg c'est pour la durée du mandat man man loolu laa donc su amul ben empêchement donc il faut nga top, nga def un choix judiciaire mhm. je crois que ni ils l'ont fait mhm surtout du point de vue des intitulés le ministère ma donc euh, intitulé tu sens que ni mettre ko en avant mhm. te mu yu nga Sénégalais yi xaar mhm. le nombre d'abord mhm. le nombre c'est intéressant euh, ça permet d'être plus efficace dans un premier temps nous euh, ngi aussi mooy le secrétaire d'État mhm. je crois que ni euh, aussi lu lu lu mhm. euh, aussi la différence entre secrétaire d'État et donc un ministre. Mhm. le secrétaire d'État il est rattaché à un ministère voilà, rattaché directement au premier ministre. donc c'est ce mais il faut aussi nous ñu man je peux je me dis que ni sur le papier ils ont une belle équipe hmm. sur le papier waaw. léegi nous ñu xaar ñu doxalagum. en attendant <laughs> euh, dans la pratique lan lay. lan lay Alors, voilà, alors balaa ñuy dikk ci profil yi loolu njàngat bu par rapport à ñuy ñëw ci kenn. wala yenn yi nga xam ne jot na marqué ñenn ñi euh, Isaac yow laa jëm yow it <laughs> nga yàgg <laughs> topp boobu ba tey li nga xam ne moo di euh, ces informations là état bi di dem ba tey ñu am donc ce nouveau gouvernement. jàngat bi njëkk bi ngay def. voilà Ismaïla jaajëfal bu baax donc euh, sama sama grand yi li nga xam ne moom la ñu wax dégg dégg nañ ko et je pense que lu leer la ci li nga xam ni da nga ko da ko laaj ci la muy question bi nga xam ne da nga ko posé ndax rupture la uh-huh. ou pas man euh, pour man du moment bii nii sax la ñu mën a répondre question boobu noonu. Uh-huh. parce que euh, tey jii nii euh, rupture man bon ça ma ci question fi ñu koy posé ndax rupture bi ci profil yi ñu teg la wala ci résultat yi ñuy indi. Uh-huh. pour man foofu noonu la mën a xoolee ndax parce que daa am ni nga xam ne fi nekkoon mhm. ñoom li nga xam ne moom la indi parce que tey jii ni ñoom xëy na li nga xam ne moom lañ doon wax mooy avoir la personne qu'il faut à la place qu'il faut mais la personne qu'il faut à la place qu'il faut est-ce que tu jii euh, cette personne elle saura faire ce que le peuple attend de lui xam nga Bassirou Diomaye ba def déclaration am dafa wax benn wax bu am solo. Uh-huh. nee na askan wi daa am lu ñu xam lay xaar ci il est conscient que tey jii askan am lu xaar ci et mën na ni ab poids bu 10 la donc bu fekkee dañoo dem ba teg benn gouvernement doon ñi doon wax waxu rupture donc je pense que ils sont intelligents pour trouver les personnes qui vont nous mettre en marche rupture bob non ñu doon wax. Mhm. tay jii pour dire que euh, rupture amna pour man euh, ce serait un peu un peu trop un peu tôt même il va falloir nous bàyyi. mais ci kanam par rapport au résultat par rapport pas par rapport encore au profil mais ça dit que par par rapport à la formation. C'est-à-dire que le nombre, c'est très important pour, parce qu'on a des fois eu dit on a des fois des gouvernements prétoriques, des fois les gens ont décrié par-ci, par-là. Mhm. Mais par rapport à la, composition ou bien par rapport à la formation d'une manière générale, 25 minutes, 5, euh, 5 ça quoi. oui en fait faut aussi eh, man j'ai pas de critique négative bi nga xam ne dama ko fay def foofu noonu ci ci nombre bi nga que ça soit mu donne 25 ou moins ou plus l'essentiel, essentiel mooy mu doon ay euh, poste yi nga dina indi développement ci Sénégal. Mhm. parce que tey je yàgg nañ si poser ay question ban euh, secteur moo mën changer Sénégal ban secteur moo mën développer Sénégal on a donné beaucoup de secteurs ñeneen ñi naan lii la ñeneen ñi naan lee la mais vous jii bu d'ailleurs, dañoo ñëw composé benn gouvernement bu def vingt ministres tey jii. Euh, loolu noonu yëpp c'est-à-dire ay postes yi nga xam ne dañ ko fay teg la on s'attend à ce que poste bu nekk indi benn indi apport ci changement au Sénégal indi apport ci développement au Sénégal. donc tey jii euh, prendre euh, compte ci nombre bi ñu am je pense que ça ça va importer peu mais.

nombre bi man nombre bi aw ma si problème parce que yaakaar naa ni Sénégal dafa bëri ay secteurs yoo xam ni euh, comme ñoom puisque cumul de mandat ak euh, cumul de service bugguñu ko tey jii ki nga xam ne moom mooy gérer wàllum sport bi mën ta gérer wàllum agriculture bi juste rek peut-être loolu moom moo indi euh, nombre bu bari bi euh, juste dañu bëgg ku ci nekk rek euh, focus ci li nga xam ni moom lañ la jox. Mhm. pour nga liggéey ko moo tax nag faudra ñu maye tuuti temps si trois mois ñu xool ba xam ni ñu fi teg. jaadu na wala jaaduwul wala li ñuy leen fi ñu ngi koy def mhm. mais instant bi wax mhm. parce que euh, mën nañu wax ne xel dal na parce que euh, ki nga xam ne moom président Jumaay ci ay discours bu discours ba yow yow mi nga parce que ni muy communiquer mhm. ak li nga xam ne moom sénégalais d'après moi

les résultats pour nous wax ndax résultats yi rupture am ou non il faut que nous ñu agir. agissons, oui. mais sur le choix. ak euh, format bi nga xam ni indi nañ euh, véritablement euh, Isaac moi je pense que il y a rupture parce que am ministère déjà regroupé les gens il y a yenn yenn ministères cinq secrétaires secrétariat c'est d'État, c'est minime par rapport à ce que vous ne moo quand même. Euh, loolu aussi euh, mon nañu jàpp ne sur le choix ak ni former le gouvernement il euh, y a véritablement une rupture ci gouvernement bo xamné aussi tu as au moins deux généraux yo xamné ñu ngi ñu ngi dans le gouvernement te ñom ñaar ñëpp dañ leena jox fo xamné dañ fa dañ fa euh, celui qui est ministre des forces armées c'est un général. Mm-hmm. ministre de l'intérieur c'est un général lolu aussi. Nous nañu jàpp rupture autre mmh. chose mooy euh, soo jëlee par exemple ministère bi may euh, le ministère des sports quand on regroupe presque trois ministères yoo xam ne nekkoon nañ fi ministère de la justice ministère de la culture et et du sport ñu boole leen ci mmh. forcément il faut que mu am y aura d'autres nominations c'est clair parce que ministère boobu yëpp super ministère il faut que mu am des des départements des mmh. directions yoo xam ne dañ koy dañ koy nommer pour ñu mën pour nous mën a doxal doxal liggéey boobu aussi dafa bok ci ci rupture maintenant euh, sur le travail concrètement euh, c'est là où on les on les attend pour euh, pour des résultats des résultats concrets L'année li nga aussi ñu rupture ce gouvernement-là est formé et le ministre le premier ministre est monté au créneau pour dire les priorités yi tax ñu ñu gouvernement donc dès le départ le peuple a un un baromètre pour les pour pour pour les évaluer sur le terrain parce que moi il a il a il a défini les priorités il a un ne former ñu former ce ce gouvernement Lolo aussi mon ami Japonais, qui ci ci ci rupture yi maintenant on les on les attend sur le sur le terrain beaucoup euh, lañ li nga xam de nom parce que force est de reconnaître que euh, on avait euh, plusieurs ministres mm-hmm. plusieurs secrétaires d'État euh, c'était pléthorique te loolu askan wi yëpp ko daan wax. ñoom ñu ñëw indi loolu. on mm. les attend maintenant euh, sur le sur le résultat concrètement mm. leneen voilà leneen li ma wax aussi mooy soo xoolee la formation du gouvernement euh, juñu naa ko léegi mooy presque ministre yëpp c'était c'était c'était c'était des personnalités yoo ils étaient en fonction quelque part par rapport à ces ministères. Mm. ça aussi euh, dafa lay gaaw a dans le travail. parce que ñi ngi ko jox mm. ko déjà. Mm. waaw so len so len assigné xam nga quand on quand on prend un euh, juriste tek ko à la tête de la justice de tout en sachant que gañi ñi justice bi dañ ko wara a gaaw régler si tu mets quelqu'un qui est qui est du sérail ça peut accentuer le travail. mën na ko mm-hmm. gën a mën na ko mm-hmm. ah, nga jël ko xam il était déjà dans l'armée nga jox ko euh, les forces armées mun na gaawal liggéey. loolu loolu loolu am solo la. Mm-hmm sinon c'est vrai qu'ils sont encadrés par des par des conseils mais qui qui encadré par des conseils mun nañu des novices qui qui euh, poste bi mm-hmm. ça aussi je pense que ça fait partie des des ruptures. Mm-hmm. alors un euh, euh, ci ou un homme du sérail wax ministère de la justice c'est un pratiquement ces dernières années euh, pratiquement secteur bo ne na ci yu bari bu euh, parce que non non en fait euh, avec ces nominations là on ne peut pas sentir véritablement une question politique derrière man dama bokkoon ci ñi waxoon ñoom ñoo gagné nañu gouverner. <laughs> dama doon dig voilà dama doon dig après. parce que moo tax wax léegi ne ce sont les gens de Pastef naan. <laughs> sur la question ah, politique bi nga xam ah affiche bi dama gis ko ni kër ngeen may ki ma gis. ah ah wu il est là devant vous. mais c'est pas grave man dama ah, gis dama gis doyen chroniqueur il a chroniqueur xaw ma na ko mais kii moom <laughs> <laughs> mais je suis content parce que yàgg naa dégg waa Pastef yi ñu ne dama leen a compte. boobu ce secteur là la justice pratiquement bokk na ci euh, euh, ci bari ci programme mu campagne bi ñu ci bari am ci pàcc boo xam ne jagleel nañ ko li nga xam ne moo di euh, ministère boobu wala pàcc boobu nga xam ne moo di la justice alors quand on voit un procureur ou bien un ancien procureur booy ñëw. Mm-hmm. nekk ci bopp ministère boobu ça veut dire benn signal la wala wala yow lan nga gis ci loolu. waaw xam nga gis nga la justice en tant que telle. je me dis que ni bu Sénégal donc euh, euh, vu la constitution la euh, loi organique nous avons le conseil constitutionnel la xam cour des comptes la xam cour suprême Fofu il n'y a pas de difficulté amul problème suñu waxee il n'y a pas de problème donc si côté taxi, Sénégal mënoo taxaw nga non la justice n'est pas indépendante. tout à fait mënul problème biñu am man je crois que ni problème nit la ak valeur bi mi incarné. les hommes. Ah! gis nga euh, moy Maître Diagne Ousmane nga xamni man je l'ai suivi yàgg na. Mm. depuis mooy euh, donc l'affaire des chantiers de Thiès. ci yenen affaire yu bari et puis so xoolee il a été mis au frigo pour ça. suy hmm. bëri ndax la nit ku nga xam parce qu'il y a eu des informations qui circulaient que ni c'était un homme qui tenait tête ci comme chambre wala ci yenn mbir yi. absolument hmm. absolument hmm. donc il il ne se laisse pas faire. donc man si profil boobu. Euh, te xam nga si intéressant mooy que ni soo dee xool moom moom la euh, mom lañ tek ci kaw en quelque sorte quoi wala sinon soriwul. ah Bah, c'est ça donc so de xool c'est un signal fort. Hmm. mooy un gars bu nga xamni il est donc intègre un gars bu nga xamni gis nga il est dans la ligne de l'autonomie. Hmm. il est dans ça kon de ce point de vue je me dis que ni sous kandiko ci texte te loolu amna ci yakar nga xamni ni na ba pare jarul soppi. Hmm. yaa ngi quand on aura une justice bu nga xam dina sans écueil c'est ma première donc impression par rapport donc à cette à cette nomination mhm. alors les hommes des fois on les hommes qui ont fait des fois défaut mhm. euh, par rapport à la tête des ministères quand on amène des hommes du sérail comme on dit des gens qui nga secteur il faut nekk exercer wala sax fonction première mhm. signal ou bien waaw non signal effectivement damay euh, damay vraiment la nomination de mon père euh, parce que quoi. Mhm. je pas de secret euh, dafa am euh, dam dam tok këram kenn mënu ko kenn mënu ko mbuub il a raison hein. Sénégal mu problème justice problème nit lañ am lool ñëpp la journaliste bi la kat bi la maçon bi la gi nga jikko yi jikko yi ñu yore ci kër yi lañuy jox loolu la ñuy yore institution yi du du mais institution yu baax yi ñu yore yëpp a baax à beau les décrier institution yi moo fi doon moo fi teg nit lu mu doon la preuve da ngay gis ni bi ñuy wax élection dañ naan langam bi baaxul te bi ñu demee loolu appareil boobu mo fal président bees moko installer moko moko et pourtant ñu ñu don ñooñu dem c'est des gens yo xamni ni c'est un homme de valeur. Sénégal bu ci amoon fuk Sénégal day jëm kanam. Mhm. li nga wax sànq mo dëgg mo nañ ko au frigo parce que conviction def nañ ko fi lu demee mais wax dëgg yalla ah, sama xel dal na ci mo parce que bu doon rek yenn gaay yi kon nekk na fi lenen parce que day suffi nga nangu yenn ki rek pour nga dem sa mhm. mais nit ku simple nit ku modeste. koo xam bo ñoon fekk ko fi fekk ko fekk ko fekk ko ko sa bañ a parce que du ndomba tànk am nañ ci yaakaar yàlla bu yaakaar surtout que nag du forcément fii téye journaliste de dina ministre de la communication dafay dox. Oh. non non non Abdoulaye Coulibaly gis nañ ko fi gis nañ fi ministre euh, Kalidou Diallo éducation gis nañ fi gis nañ fi chaque jour nga jël nit koo xam ni lii la nekkoon des professeurs d'université ma tooy ñaan après nga fal mais après <laughs> du loolu ah. Mm-hmm. ma tooy ñaan nekkoon na ministre de ministre de l'enseignement supérieur. Mm-hmm. mais moo problème <laughs> mm-hmm. donc du toujours le cas hein. c'est-à-dire que baax na yaakaar da ci am. yaakaaru na quoi. mais lan nit ñi mooy li muy li mu wax sànq dafa am problème nit la rek. mais du question niw nekk na nangam déedéet te di ngeen ci gis dara nee naa la gis nañ fi professeur yu ne ñu jox leen éducation mu am problème c'est pas une première nga jël au nom du CRA nga ministre de la gis yu mel noonu yu bëri Iba Mar Coll fu mu nekkoon xamees euh, Ndiaye lan du santé non cercle du lu bees lii du lu bees maintenant nag problème bi mooy nit ñi incarné foofu la problème bi nekk. valeur yi valeur yi quoi mais wax dëgg yàlla Sénégal bu fekkente ni rek def nañ enquête de moralité yi comme ni mu waree comme ni ñu ko waree nit ñu xool leen ci seen jaar-jaar fiñ jor joor fi ñu jot jaar ba jox lañ yenn ki kuñ ko jox rek japp naa di ko doxal. Mhm. parce que nit aussi éducation tay le premier euh, le le le premier ça le en tout cas le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar li tax Sénégal yëpp bëgg ko moy dafa yaw nga xam ki amna valeur motax ñepp am ci mom yaaka ta dañu autant. du am expérience bu extraordinaire mais yaram moo tax ñëpp am ci moom daal. Hmm. Sénégal nañ am valeur jiital ko bu ñu ko defee ñaani la nit ñi ñaan sax da nga réussir. Hmm. man donc ànduma ak ñoom mais am naa yaakaar ci Bassirou Diomaye Diakhar. Hmm. peut être bu ñu ko bàyyee ci sagom ak yar gi ñu ko yor ak valeur yi moom Sénégal mën na jëm kanam. mais bu ñu ko buggee dugal ci yeneen ñi fi jaaroon ñu fi jaaroon parce que Sénégal aussi yàlla du ko ci loxo yoo xam n'importe qui la seetal ñi fi jaaroon yëpp da Senghor à Macky Sall da Senghor à Dia à Diakhar ñoom ñëpp c'est des gens yu dal yu pondéré yu point de vue valeur peut être problème bi nekk mooy. ñiy dénk ay responsabilité voilà foofu la problème bi nekk mais wax dëgg yàlla Sénégal yàlla barkeel na. Mhm. Senghor laa la ba fi ñu toll nii ñu fu mës a jaar ñëpp dañ leen nangul seen yar seen dal seen xam-xam seen bëgg Sénégal. Mhm. maintenant nag ñi leen di jàppale nañ am loolu nañ imité ci ñoom loolu. ba yaakaar ñëw. parce que mhm. Sénégal aussi ñoo ko bokk. ku ko mënti yor na ko jëmale kanam moo ñu intéresse te li koy doxal du nit falu li koy doxal mooy liggéey am métier am am am valeur am jaar-jaar. nekkal tuddal jaxaar tuddal Ismaïla tuddal keneen nit ñi bu ñu demul uti ji liggéey jàngi bi wuñ Sénégal bi dem kanam man dama ko yërëm parce que attente bi ñu def ci moom ku yaakaar ni sa ab président la rek mooy mooy mooy sopp sa àdduna da nax sa bopp les a nañ dem liggéey ñoom it nañ tëdd un de de de vérité aux gens aux jeunes da ngay nit liggéey am xam-xam jàng uti liggéey gëm sa bopp nga entreprendre parce que état mënut a jox liggéey formation ba mun def nga entreprendre xool foo mën a jaar ba génn ci mais Pape Doumbia il est là lu mu taxaw sa entreprise am la taxaw mm-hmm. jël ay jeunes ñuy liggéey nañ jaar foofu encadré nit ñi dafa développer secteur privé bi nit ñi mën a liggéey dem seen yoon mm-hmm. mais leneen lu ñu def loolu nit ñi xale bee gouvernement bi dem la ñuy parce que mënuñ ñëw fekk du jour au lendemain comme ku yor benn baguette magique soppi nit ñi Sénégal nekk ci ñëpp am liggéey mu mënul nekk mais est-ce que mën nga mën ni comparer. quelqu'un qui a exercé. ou mhm. quelqu'un qui a samp parce que aussi ce qui est important c'est ko. Mhm. peut-être ce qui a fait échouer certains modi équipe bi di mhm. d'où la nécessité et d'où l'importance de se poser des questions. ci équipe bi nga xam ni xam nga classement moom bu match di tàmbali moom la ñuy njëkk a xool. c'est c'est c'est c'est très important. mais image bi nga joxe c'est. non mais mais xam nga kii c'est ce que j'ai dit donc sur le bopp ils ont une belle li muy wax li muy wax ni ku ku contre. feuille de route bi feuille de feuille de match bi baax na. feuille de match bi baax na moom la kii waxtaan. waaw nga Isaac ma ko wax. il faut que dafa ci lañ nekk

ñu xëy euh, Ismaïla moo nekkoon ministre bu ñu ko wàccee sa dossier dañu ci am ba ci suuf bëgg a demaat ci kaw kon bu ñu sañoon def ko fast track mu gaaw dal mu doon gouvernement boo xam ne doon lu ñu changé ñëpp réussir ko ñu dem loolu ku ko xamul rek mooy nekkoo ci biir mais boo ñu nekkee da ngay ñaan yàlla ñu réussir parce que bu ñu échoué dañuy delluwaat ginnaaw loolu mooy dëgg de waaw te ñun loolu <laughs> non li muy li fi muy daanele rek mm. donc foofu lay wax mooy que ni gis nga nous sommes dans le même bateau. tout à fait C'est un peut-être Stéphane, que, nous ko critiquer par rapport à leur manière de s'opposer mm-hmm. opposition ou même. Oui, tout à fait Nous sommes au Sénégal franchement parlant. Mm-hmm. te man je l'ai toujours dit mais nous avons nit ñi suñu accéder au pouvoir. Mm-hmm. gis nga pouvoir de femme réalité. tout à fait la première chose c'est que Euh, moy l'organigramme structurel bi nga xamni ni moom la utiliser donc bobu ñu ko donné ci français yi de. Mm-hmm. Mm-hmm. ce système donc de de hiérarchie. xamni mm-hmm. xam ni diw moo jiitu diw mo ci top, diw. donc soo doon xalaat bëggoon rupture deug deug da ngay opter pour benen organigramme bu nga xamni euh, le gars qui qui est dans euh, une direction au niveau d'un ministère dina mëna am accès directement euh, ci président de la République mais ak organigramme bi nga non ce gars là le ministre bi lay ministre bi relié mhm. donc ça se passe comme ça. de ce point de vue da ngay ni réalité opposition ak réalité état beaucoup. Mhm. mais quoi qu'on dise. nous mhm. que ni ñun ñep ay sénégalais en ce moment ce ñu nous a def nous lan euh, ñu fexé ñaanal buñu ñu réussir donc ñun ñep ñoy réussir ah. Ah. parce que xam nga fan ngay xalat moy tay même ñom suñu jeexalee leur mandat de cinq ans mm-hmm. wala ñu tegaat ci benen euh, amad ko yow mi nga xam ni yaa doon opposé wu mm-hmm. bu féké ñom réussir nañ mm-hmm. yow do commencé wat à zéro dangay continuer da ngay continuer ak ñom da ngay continuer donc basé aussi liñ ñu pour mëna donc am un Sénégal bu nga xam ni c'est c'est un pays développé riche exact ah, bon

ñi nga xam ni euh, dañ dañ ko doon critiquer ñoom teguñu ko fenn. on peut pas waaw on peut pas dire que ñi nga xam ne ñoom ñoo daan ne justice bii ni amul indépendance teguñu ko fenn parce que ils ont tout le temps demandé à ce que mu am euh, benn séparation des pouvoirs entre le judiciaire euh, entre l'exécutif et le judiciaire Taji, jii quand ces gens brandissaient euh, des des raisons comme dire que Macky Sall moo fi nekk voilà amna na euh, sama conc bi ma ci ci ah, dossier yu bëri ñom raison la bi nga xamni ni euh, ñu doon né indépendance amul ci côté justice bi mm-hmm. tey quand on voyait des rapports yi nga xamni dañ ko doon génne mu am ñu mu épinglé te suite judiciaire amul ñom dañ leen jox raison ñu taxaw né carrément que justice bi amul indépendance donc tey ni je pense que ñom li nga xamni mom moom xaar moy à ce que liñ ñu doon ñii nii mën ko matal. Oh. profil bi nga xam ne moom la ñu teg ci ci ci ministère de la justice. yéen ko wax bañkat la. Mm-hmm. Euh, tey jii nii euh, bañ moom moo ko euh, tardeel ci lu bëri lool la grand bi wax léegi léegi mm-hmm. mais tey jii nii li mu wax tamit yokkaat ko ci mm-hmm. est-ce que doon loolu noonu. wala est-ce que nekkoon ko wala est-ce que incarné poste boobu noonu.

parce que euh, tey il va il va pas falloir que ñu daal di euh, effacer ñom sen cas daal di jël juste justice bi ne voilà pour régime bi nga xam mom mo fi nekkon te jógee fi la beneen mbir mi euh, moo di mi mi ngi may échappé hmm. ci ci côté justice bi ba légui nii euh il va pas falloir que actuelle opposition bi fi nekk c'est-à-dire ñi nga xam ñom ñoo fi hmm.

il va pas falloir ñom ñu nekk di duggal ci xelu sénégalais ben ben mbir que gouvernement bi ni ñu teg ngeen am ci ñom euh, yaakar euh, bu leen yaakaar ni dinañ dinañ leen fat bon je pense que le mieux c'est de rester optimiste. Mhm. Mhm. c'est-à-dire mayel ben ben bénéfice bon bénéfice du japp ne carrément xëy na euh, li nga xam mom la sénégalais di xaj ñom ñoom dinañ ko indi mais tay ci quand on on entend ñi fi nekkoon c'est-à-dire waa que ça soit waa benn bokkaar ak ñeneen taxaw di am wax yi nga xam dañ koy wax ci gouvernement bi ni c'est comme si eux ils se mettent dans la même peau cest à même attitude bi nga xam ne ñële moom lañu nekkoon te ñu ko critiquer bu baax a baax oh. il va falloir que loolu noonu yëpp ñu bàyyi xel pas utiliser aussi le peuple sénégalais mmh. pour comme benn benn genre bouclier wala pour aussi victimiser wu ci ñoom pour euh, atteindre régime bi xam mom moom mooy. je pense que ce sont des choses yi nga xam ne war nañu si mën a bàyyi xel jamono Ismaël. Fatou intéressant. Euh, moom fi mu bëggoon dugg ak euh, monsieur mooy sànq mu ngi wax ni parfois dañuy gis koo xam ne dafay euh, nekk ci ben activité bi ñu jëlaat ministre bi jox ko ko euh, par exemple man euh, dama dama jàpp ne euh, li nga xamné mom modi gouvernement bu bees bi ñu jël li nga xamné ay ci liñ doon liggéey jox leen ministre bi bu amé suivi ba paré am contrôle est-ce que ñoñu dinañ am fitu def njuuj ndaj wala ñu baña doxal li nga xamné mom lañ leen sant mhm. question boobu laa ko kan pour Thiam la <laughs> non xam nga mom li ma bëgg wax moy mhm. maanaam nit ki mën nga nekk enseignant

yoo xam ne kenn mi muy wax moom xalaatam la mais li ko fa génne du loolu. Mhm. yaa ngi dégg donc dafa am professeur d'université seen réforme yu ñu tegoon yoo xam ne ànduñ ci ak moom. nga dem ci Kalidou Diallo nekkoon ministre éducation. Mhm. am yoo xam ne ànduñ ci ak moom. tout à fait te pourtant ñoom c'est des yaa xam ne ñoom ci ci secteur boobu lañu nekkoon. Mhm. nga dem santé amoon na fa. xam nga dafa am loo xam ne fa faaw ñu d'accord ci euh, dafa ñu ñaari mots yoo xam ne dañ ciy juum rupture ak euh, kii innovation rupture mu am ci état état continuité la koo dégg ma wax rupture rek baatu oppo opposition la quoi la preuve secrétaire général de la présidence. dañ ne dañ ko dañ ko dañ ko reconduire xam tax boo ko dindoon nag la rupture daal mooy yow da ngaa dagg buum bi mel ni kuy dax tabaxaat lu bees. mais ko xam nga ne moom moo yor appareil moo xam ossative nga ñëw fal tey mbuub mu ñëw xamul sax mu ñuy defaree dëkkër mu ñuy libalee dëkkër mais comme boobu ñun yàgg na xam na ko mais bàyyi ko mu ñëw nga kii. loolu continuité la loolu tax ñu di continuité administration dara changé wu ci. te l' état Sénégal nag administration bee ko ŋànk. ñi ci kaw di wax nii ñooñu c' est des gens yoo xam peut être ñoom la ñu yor baat yi ñoom la ñu dénk mais ñi ko yor dëgg dëgg dëgg ñooñu fa ñu nekkoon dara changé wu. léegi nag li am solo mooy nekkal ancien nekkal généro nekkal professeur d' mais li ma wax sànq mooy tant que am nga éthique am moral réew mi ñor la. di nga liggéeyal Sénégal. gis nañ fi ñoo xam ne yor nañ secteur boo xam ne nekkuñu woon musuñu xam dara ci loolu. pourtant dañ fa def ay résultats yu bëri loolu sax moo ëpp d'ailleurs. Mm-hmm. parce que de pour say moroom nañ la ak yomb duñ la may dara parce que naan xam nga lépp. Mm-hmm, mm-hmm. xoolal xoolal culture muy ministère bi gën a instable ministère de la culture ku foo ba sa jaar gars yi jël nañ la te pourtant ñu fay jaar ñëpp c'est des c'est des hommes de culture Abdoulaye Coulibaly <laughs> jaar jaarul foofu. kan moo ko gën a homme de culture. ñaata livre la bind lan lan c'est amul lu mu lu mu deful ci culture. Mm-hmm. et pourtant yàggu fa <laughs> dañ ko critiquer. oui mun nañ joxe exemple mais noonu quoi. Mm-hmm. ana yoo xam du du du jeex. donc daal li ñu ñaan yàlla mooy. nekkal généraux nekkal <laughs> médecin nekkal lépp. <laughs> waaw loolu la quoi. bon je suis désolé mais il faut mooy ma jël ko contre-pied parce que. comme d'habitude xam naa rek tam mu yaakaar ne gars yi laa faral. non mais mais rassurez mm-hmm. euh, am na ñu may seetaan ñu bokk Pastef xam naa ne. ils vont même rire sous cap quoi parce que jàpp nañu ma fii ne peut-être ñoom rek laa contrôle. <laughs> ñi xam nañ bu baax li may wax. <laughs> bon c'est pas c'est pas c'est pas ça le plus le plus important dañuy jàngat rek parce que en fait euh, euh, ñun moom yàlla def na on est on est libre d'esprit dans ce dans ce sens-là man su may wax rupture bi te loolu nag maa ngi xaar ba ba léegi waxugloo mu lan moo tax rupture amul non je n'ai jamais dit que rupture D'abord, le ne rupture innovation. non man rupture innovation rupture rupture, rupture bu non, non, rupture, non, sax rupture, non, ko non non non parce que rupture non, non, rupture, non, non non non rupture non, non, non non non rupture rupture non, moi il y a rupture dans cette nomination. non ah, <laughs> non non, changement changement rupture non non non il n'a pas compris. ah innovation mun am na de taille y a de taille. mooy nga indi lu bees. li am woon ma yokk ci lii li musuñ koo gis jaxaar ba ci discours am ni mu ko defee innovation la génn ci porte d'entrée bi dox ñëw taxaw. waaw loolu loolu c'est loolu lépp innovation la. déet ñu ngi man non rupture mënu ko mënu ñëw rupture ci doxalin la. Ah. maanaam ñu nag maintenant. mais mais aussi. est-ce que tu peux la aussi du choix oui non c'est-à-dire xam nga euh, dama né comprendre mais ni annoncé ni nguur gi li lañuy def ngi lan wax ils vont mettre un gouvernement. non wax non anti système wax. gouvernement non non avant ça non non avant ça système on va changer le système. non.

du ma jël génération bu sori ah, ba ci ñoom ba ci Léopold Senghor ou Abdou Diouf damay jël rek Macky euh, son excellence Macky Sall président ak président Ablaye Wade ñoom ñëpp ku ci nekk ba nga doon daagaat waxoon nga lu mel nii te indiwuloo ko. kon jeex na on est d'accord non li ñu wax dañ ko indi. non non en cinq minutes non non non non non non. béy <laughs> ko après nga am. le président Macky Sall waxu fi woon ne dinañu wàññi. ñoo ñu woon ñi fi nekk ñi ñëw ànd ah, système lañu wax. ñii dañ ne. waaw 25 ministres la ñu. waaw euh, promesse la woon aussi. oui et puis en 2012 le président Macky Sall avait annoncé cela. le président Macky Sall avait annoncé ça. il avait pas fait ko neex rek quoi. non tëbbuuma fu ma neex. <laughs> je parle de rupture. Ah. parce que la fi doon nekk ñoom dañ ne bu ñu ñëwee dañuy rupture dañuy indi rupture ci loolu dootuñu ko def. est-ce que foofu lañ commencé projet bi. waxuñu anti système. mais yow man dama bëgg traitement de bonne foi nga ni ma ñom ñoo waxon anti système loolu bo ci d' accord ak suñu waxtaan dina neex quoi mais da nga bëgg ñor ci coxatu di la neex. ils non ils ont parlé de de anti système. voilà maa ngi leen xaar ci anti système. non attends anti système yow nangu nga ni. ils ont dit que anti système du ay nit. là aussi mais ñom ñu terroriser seen yëpp. ils ont dit que anti système du ay nit. c'est la manière la démarche moom mooy am mooy système. qu'est-ce qu'il y a effectivement je suis d'accord non attendez. d'accord euh, xam nga même déw dama nga am na loo wax loo il faut que nous ñëpp d'accord ci te wax nga ko léegi ma ànd yow à 100%. pour cent ils ont trouvé un état fort avec des institutions fortes ils s'appuient sur ça et ils continuent à travailler parce que bu ñu fi fekkul woon. c'est ça le système alors que je donne pas non non non non mais qui conduit le système. très franchement c'est pas ça le système. c'est les dispositions yi ñu fi fekk loolu le système ok voilà mais moom moom moom yey na boppam sax. man waxuma lu dul loolu. waaw yow léegi yow moom lan non non dama d'accord ak yow ci benn affaire dama ne la. nangu nañ ne réalité pouvoir ak réalité opposition du benn bi ñu doon wax an système en bi ñu xam nañ système bi ñu ah, fekk ci lañ mën a sukkandiku pour dem. mais il est évident que am na xam na nga koy changer mais ko mënoo. il faut même baa l'avez dit vous avez dit nga noonu je pense <laughs> moom xam naa li mu bëgg a wax rek la bëgg wax quoi.

génn ma classement boo je vois un défenseur à la place d'un avant-centre je vois un gardien de but à la place d'un milieu de terrain damay pessimiste ba ma gis ñu doxal et quand je vois un défenseur à la place d'un défenseur on am préjugé favorable Si vous gisee un attaquant poste attaquant damay on am préjugé favorable un milieu de terrain au milieu de terrain on am préjugé favorable mais su ma gisee un iso gardien de but attaquant je dis mais waa il y a quelque chose il faut que tout le monde l'encadre

man gisuma loolu ci ci bi donc il y a rupture mm-hmm. aussi bien au niveau de maître Ablaye Wade qu'au niveau de du président Macky Sall amna ño xamné dañ leen a joxoon tout simplement parce que ci coalition lañ nekkoon mais avec cette nomination là j'ai pas senti ça je l'ai pas vu kon il y a rupture non attends vraiment, euh, Diouf n'est pas de la coalition mais il n'est pas de la coalition non non doyen non attends ah, doyen yow non attends attends non non, aussi bu ñu waxtaan dama bëgg ñu teg ko ci vraiment ci logique quoi nangul ni rek rupture am na one est d'accord. ah kon d'accord mais loolu laay wax. dama ne yaa ngi ci Pao yow yaa yaa ni non yow yaa ni rupture am na bés ma gisee ñu déglu. ñi waxtaan ci entre dama lay wax rek gis nga même le général là bi ñu teg au niveau du ministère de l'intérieur su ma départ ma gis ne jeng na man maay njëkk fii ne. ma lay wax loolu laa dama bëgg aussi ah. ma non ni gouvernement bi est composé et des gens du Pastef. et des gens de bu ko bëggee nier ça veut dire que vraiment il n'est pas de bonne foi. kan kan moo nekkoon ci non attends non attends le le le le comment on appelle. Guirassy Abdourahmane Diouf yaa Guirassy yaa Abdourahmane Diouf yaa yaa non attends non bëri na. ah kat non man xam nga man histoire de Pastef. ah man ñoo. non dafa nag yow yow même ñaar ñuy nangoo ko. ak yow mooy mën a faal kii de Pastef yow aussi. on n'est pas là pour se dire sax mais ah, loolu laa lii mooy lii mooy yëfu journaliste dama bëgg nga. ministre des sports non bëri na. mais non kooku. non doyen bi vraiment il n'a pas de bonne foi. la dame la non attendons. mais la dame la d'après les investigations. ak li ma dégg non elle a montré son appartenance à elle a été elle a été. yaa ngi dégg. Guirassy il était dans l'autre kii mouvement boppam peut-être daan bi ñette dëkk yow yow léegi la question la question boobu la question ok la question boobu c'est c'est c'est que bon fi la ñuy desandi mooy est-ce que tu es obligé au ah. profil maanaam politique bi ñeneen ñi xamal non ou bien selon c'est c'est les compétences ça va pas xool avant de répondre même tuuti rek ma rebondir un peu sur mooy bon dugguma ci seen diggante. non mais wax d'éclaircissement par rapport boo war a débat dafa am dëgg aussi. ah mais Sénégal yi mais teggil ma leen wax. ñaar nga ma wax. non mais c'est important parce que ñu lay tàmbale. Guirassy c'était le directeur de campagne du président.

mën nañ fi mhm. te wax lu nga ne. dans un premier temps soo jëlee donc système. c'est un ensemble. lu c'est lié. Mhm. interdépendance day pour lan pour mu quelque chose vers un objectif. Mhm. bien déterminé lu nga xam nga vision bi d'abord. donc dans un premier temps pour ma leeral dara sama euh, ce n'est pas un problème d'homme hein, dans un premier temps. Mm-hmm. loolu aussi il faut me l'air sur bopp. c' pas parce que Dieu bokkoon na ci système bële ñoom dans woon li nga xam ni la askan bi don xaar ci que ni Dieu moom non. Bah. yow quoi il koy rey wala. non c'est pas ça. Mm-hmm. du loolu da ngay ma ma jël doyen tout ma kii ko parce que mu ngi ci milieu sport da ngay jël ben jour nga am ben euh, ben comme je sais pas ou kay <laughs> c'est-à-dire le système de jeu. il est bien mais il ne se sent pas à l'aise il a été mal utilisé absolument comme et je crois bien hein, je suis pas de pas stéphane hein. man degna non degna le président Diomaye muy wax ci ben interview ci ben vidéo que ni c'est pas nit qui dafa bon APR. que ni dafa bon nous devons tout utiliser non c'est pas ça. et ils l'ont dit dans la campagne électorale. Hein. oui c'est pas ça dans un premier temps. alors Benel Bimoy, guise entre rupture et innovation pour à chaque fois ça innover. da indique rupture. qu'on se dise la vérité. Ça y est, innover, rek indi rupture. Mhm. Les par rapport à la constitution du gouvernement gis nga c'est pas dit que ni nit ñi ñom ñoo àndandoo woon doon campagne. kenn waru ñoo suñu paré kenn ku nekk dañ koy jox ben poste pour mu dérouler d'abord ngor loolu la bëgg xam nga mooy yéen a àndandoo woon mais dafay fekk kenn ku nekk ci ñooñu liñ ko nar a dénk mu mun ko doxal am compétences yi loolu aussi il faut mu leer dans un premier temps man je me dis que ni su fekkee ni ñoom ñi donne euh, battre campagne gis nañ ci ñu nga xam ni mën nañu assurer des ministères non jarul ngay jéggaani feneen commencé leen si ñooñu d'abord la preuve am na ñu nga xam ni ñu bari ñi ngi won ci ñoom les Mimi Touré uh-huh. ay ay dëmboj je peux en citer d'autres ñu nga xam ni ñu ngi leen doon xaar les dëmboj oui non ñu ngi leen doon xaar uh-huh. mais ken nommé wu leen uh-huh.

ci ñu politique. c'est ça déjà c'est quelque chose nga c'est un acquis dañ ko euh, ñu koy même keneen bu sont compétents doxal nangam. politique est-ce que la am. mais mais. attention non non doucement euh, non. non. en fait j'ai vu. Non. élections, Non. Non que euh, juste à six mois des élections remaniement amna. mais j'ai vu des ministres je le dis comme ça ils ont été nommés parce que de nous en base donc ont été nommés pour une def de la politique. Mhm. en quelque sorte nañ euh, avec le président Macky Sall. Mhm. voilà mais man euh, li ma bëgg me wax mu ma bëgg aussi askan bi yëpp déglu ko mu leer. Je mhm. que ñoom nit ñi doxalee en ce moment mën nañ am yaakaar xam nga man dama am sama benn dijaay bu nga xam nii mooy sànq ba tey yéen a ngi wax non nit ki mën nañ ko teg fenn fekk moom foofu vraiment yàgg na xam na domaine bi maîtriser na ko mu échoué. man je me nit ki lu nga xam ni bugg ko doo ko tudd ba koy xalaat on veut pas que ñoom ñu échoué. bugguñu ko mhm. te sur le papier nit ñi gis ñu nommé leen. am nañ ci ñoom yaakaar man loolu kese laa wax c'est ça kay <laughs> c'est ça mais man nit moom lu nga xam ne buggoo ko bu ko tudd sax waaw bala muy am c'est ça am fi ci ma fi ma doon ñëw ni hmm. carrément dama duma du ma ci ànd ak yow mooy lorsqu'on dit lorsqu'on disait que carrément bu innovation amee et am na hmm. bu ñu innové benn mbir ça pas dire que li fi nekkoon nañ ko fi jëlee mm. carrément dañ ko amélioré. absolument absolument mais tey jii quand on parle de rupture. c' est mm-hmm. carrément c'est-à-dire rompre. Mm-hmm. takk mbir mi te yaa ko wax. fi foofu dama fa ànd ak yow ba nga ne euh, système bi. ensemble la. justice bi tey jii ñi nga xam ñoom ñoo fi nekk politique yu bëri yu fi nekk en fait c' est le système qui les a façonné. Mm-hmm. système bi moo leen defar ci système bi lañu duggee ci politique ci lañ màgg ci lañ dem ba tax am taxawaay bi nga xam ne tey jii euh, moom la ñu am maintenant est-ce que ça c'est non non Isaac xoolal dégguma la gouvernement bii nii mm-hmm. gouvernement bii ñu nommé nii mm-hmm. kan nga fa gis koo xam ne il a été ministre avant gouvernement benn kenn rek la du kenn rek c'est que ak kan ak kan non dafa ndànk non kenn laa xam ne

le balaa la ki njëkk a nommé après après. le secrétaire non ah, ministre waaw waaw d'accord non attends dafa ndax xaaral man dama bëgg Isa mu mooy ma tuuti quoi ñu waxtaan. kii euh, Ismaël. copain li ma lay wax waxtaan. li ma lay wax ñu teg ko ci xam-xam. ak tamit vraiment. ah kon nga bëgg a wax li may li may wax tegu ma ko ci xam-xam très franchement. on joue qui parle comme ça keneen. non wax dama la ñaar non Samba Omar Ba euh, ki moo ko reconduire. Joma mm-hmm. Jaxaar. Je suis reconnu le jour bu mu fallait le premier ministre Ousmane Sonko. on est d'accord il fut ministre. waaw Girassi, il fut ministre. À kan waaw dafa Il da nga ne ci kenn xaaral kenn la woon gouvernement bi ñu nommé tey laa wax kenn nga di mais lañ nommé. ça va pas là ce monsieur là. nommé le gouvernement ah. d'aujourd'hui c'est le gouvernement de Sonko 1. on est d'accord Si le gouvernement est lañ nommé il Samba Omar Babo, nga lan mooy différence keroog ak tey. waaw non dama ne waaw. waaw waaw waaw waaw place je suis désolé ah. waaw d'accord léegi may ma may ma. non kii ça va ok mais je je je vous en je vous en prie. eu, nga ce eu, se passe eu, dans ce eu, là. waaw je vous en prie defal naa. non attends je vous en prie. je retire je suis désolé quoi eu, déglu ma non man non eu, man comparé eu, seen affaire eu, parce que eu, bëgg su eu, la jublu à part yow mën eu, war a eu, sax nga eu, ma mais de mauvaise foi nga bëgg ñu wax noonu ni kenn nekkul dans la géologie Il y a deux. Il y a Je retire monsieur ce que j'ai dit. Vous avez raison. tout sauf un débat d'intellectuel et de nouveau. Je peux y aller? Oui, vas-y. Je retire monsieur ce que j'ai dit il y a deux. Mais dis-moi, à partir de deux. Non, je ne vous réponds plus parce que vous êtes de mauvais. Donc, je suis Vas-y. Ah, voilà, c'est que ah, je Je Moi, je ne fais pas le système Je hum. xam nga euh, man depuis sànq ba léegi su wax ci rupture man ci ci côté mais côté système bi nga xam ne la fi c'est pas mbir bi nga xam mbir simple la mbir mu ñu bën koy non non parce que ñom ni ma fay système mo le façon justice bobu non mo fi nek li nga démocratie ils ont biñu di wax ont lañ fi eh, ne peut-être tay ci li nga jëm rek améliorer bu système bi lan ban ban ban ban idéologie lañu mëna indi ci bop sénégalais yi bañ ne carrément génné nañ li fi nékkone yépp depuis euh, jamonoy Senghor euh, ba euh, tey jii nii indiwaat leneen lu bees lan moy rupture bi nga xam carrément mom lañu wax au niveau du système. Mm. système bi c'est pas mbir bi nga xam ni ko sànq c'est un ensemble. Mm. mbir la bi nga xam ne fu mu jógee fa sori donc pour man jëlé ko fi c'est pas quelque chose bi nga xam ñom niñ ko doon waxé non lay amé mm. non en fait xam nga c'est tay su féké à chaque fois soo waxee nit ki système bi moko façonné li euh, sous-entendre moi ah, idée bi am en arrière-plan moi là, qu'on nit ki qu'on se dise la vérité nit ça c'est pas mon non mais non je je, veux dire hein, hein pasteur opposé wu di wax ni non système bi nangam nangam non ça veut dire que ni non C'est un entendement Voilà, comprendre hein? alors que gis nga mën nga nekk dans un système yaa ngi dégg mais nga garder sa intégrité ba nga xam ni yow même bu fekkee ni le système a essuyé. yow sa bopp non. tu restes ça tu as du talent am nga mën nga nga tu es efficace. et puis dignité. merci beaucoup les valeurs sont là. c'est ça loolu man je me dis que ni du ay problème bu nga xam ni euh, dañ naan non diw bokkoon na fii kenn waru ko indiwaat fii loolu aussi parce que gis nga même aduna doxewul non gis même nit ñi nga sax dañuy def ay infraction ñun nga euh, système bi am pour les réprimer je me dis que ni mënon na sax pas, à quoi bon nit ki def na nangam ak nga jël prison euh, fayal ko ndox euh, fayal ko courant diko jox muy di jox muy nan pour mu am ban jariñ mu nelaw donc nous avons ko changer peut-être dans la vallée nous euh, affaires affaire euh, produire pour les sénégalais. pour hmm. les sénégalais yi di euh, génne ci des di hmm. donc je me dis que le hmm. problème bi du le non. système bi ak système Ce ngi li fi que a nekkal bu moi, un gouvernement gouvernement dans la constitution d'ailleurs sans nga y ait non peut-être une séparation de pouvoir mais dans la constitution c'est clair titre de euh, donc euh, du président de la république de l'opposition de l'assemblée nationale ainsi de suite euh, du pouvoir judiciaire mm-hmm. Comme pour te dire que mais le constat général dafa que ci non tout est dans la pratique moi su fekkee ni da nga am. justement une théorie qui est là nit ñi war am des valeurs xam nga d'ailleurs dans les lois d'orientation de l'éducation mais le type de sénégalais qu'on veut former moi ki nga xam ni faire am job am full am fayda am fit comprendre nga kon su fekkee ni façon nañ kooku beaucoup de gens nga te ko ne ko le lit Sénégal parce que il faut aussi bien affaire l'air gis nga ministre yi nan lañ leen di wooyee ci olof ay jëw ay jëwriñ ñu nga xam ni dañu nekk ay mindaanu sénégalais yi kon ñoom sénégalais yi ñoo leen yónni pour ñu liggéey sénégalais ñooy seen patron merci kon waruñu leen fa teg pour donc ñu gundaandaat <laughs> mais mais mais je pense loolu Sonko Sonko kii pour waaw c'est ça c'est ça on est tous d'accord que benn ci benn benn mbir que euh, système bi mën nañ jàpp ni euh, ñoom dañ cee gis ay fissures ay failles et que fissures yooyu noonu euh, pour def defaraat ko il va falloir ñu gën ko gas gën ko toj. pour bu fekkee nag loolu la. moom je suis absolument d'accord. waaw léegi. d'accord man fi may laaj rek Thiam li mu wax dama ci dama ci d'accord ak moom état de rupture mais continuité la mm-hmm. continuité boobu nag laa koy laaj tey jii gis nañ euh, changement ci li nga xam ne moom moo di gouvernement bu yees mm. bi nga xam ne daan nañ ko def ndax yow gouvernement bu yees bi nga xam ne def nañ ko am nga ci yaakaar mm. te it ndax jàpp nga ne di changement bu radical dina am par rapport ak gouvernement bi nga xam ne moom nañ di sóot voilà merci beaucoup Fatma xam nga sànq sama njëlbeen dama ne am naa yaakaar ci le président euh, Diomaye mm-hmm. parce que bi mu defee discours rek gis naa ci moom ñaari mbir dañ ko soxla ci njit mhm. dal gi ak yar gi ak bëggam sénégal sax discours daf ci wax ni moom xam na ni dis na attente bi kon am nañ ci moom yaakaar ñi ngi doxal ñi ngi gën am bu tas mooy le problème du doon njit parce que sénégal yàlla baaxee na ko baax goo xam ni de sangoor à moom ñi fi teg ñëpp même kii lañ am ñoo xaw a yam caractère nañ dal nañ te gis nañ sénégal ñor na leen

dafa am loo xam ñoom ñoom ñu fi tege seen wax la woon seen jëf la woon seen doxalin la woon boo nee lii baaxul boo ñëwee forcément da ngay joxe le contraire la preuve yi ñu promettoon dañuy obligé di ñu métti métti ñu jéem ko respecté d'ailleurs loolu bokk nañ tànn seen gouvernement bi parce que gouvernement bi ñu bëggoon def bu ñu ko génnoon Sénégal li leen di ko wax ah yéen a waxoon moo tax boo xoolee ba ba léegi ñu koy jéem a restant di ko restant di ko restant PDS dañoo perte dañoo dañoo gedd seen seen ministre

man du wax rek toujours dama koy bëgg ñu tek man lu ma wax dama lay indi preuve. soo duggee léegi ci net bi da nga gis fu ñu waxee mu ne euh, Karim Wade ASC dama câblé j'ai pas voulu le répondre parce que pour man c'est l'incarnation typique du système. un journaliste bu bu avertir li may wax ni xam na ni Ousmane Sonko moo ko waxoon. mu ne muy kii yëpp Macky euh, Abdoulaye Wade di dañoo war a figé. loolu du sama wax moo ko wax. waaw ñooñu nga bëggoon figé ñooñu nga bëggoon xalaboon ñi ñooy incarnation du système tey ñooñu nga lëkkaloo ba accès au pouvoir. benn njàngat dong laa ci wax ba mu koy wax gëwuma ko woon xamoon naa ni il va se euh, se contredire mhm. tey dem na seeti ko Ablaye Pérez moo ko jàppale dem na toogoo moom photo laaj voix am gërëm ko loolu yëpp on est d'accord ndax Sénégal moo ci gagné mhm. man na ñu nekk pouvoir au pouvoir yàlla na yàlla dimbali ñu mën a gouverner ci jàmm ñi opposé bu ñu opposé nañ ko def d'une manière républicaine mooy lu doxul nga ni lii de bu ñu sañoon ñu defee ko nii mu gën yaa ngi dégg bu jàddee yoon nga ne ko ah, jubal yaa ngi wàcc yoon bi

noonu lañ ko bëggee ñu toppee ko képp koo xam ne profil bu baax la. Uh-huh. ba ci genre général tun bi mais kan moo ko defoon général du Macky Sall produit Macky Sall et cetera ñu ñaan mooy pour répondre à ta question yàlla nañu réussir ndax mooy suñu ndam ñun. Uh-huh. suñu échoué ñu échoué. kon sa conscience tranquille na ci mais bien sûr amu ci problème. dañuy toog di observer jusque là. très franchement rien à dire mm. sauf que rek. fàttali leen seen waxul dem bu ëllëgee bu nekkaatul opposition gëm naan du ñu waxee ni ñu doon waxee. parce que xam nañ la réalité tout autre. alors ci loolu ñu desandi. am am waaw aywa jëlal kon balaa may dem ci sama laaj. ci parce que yaa yaa. maa yaru quoi. Euh, <laughs> très discipliné daa waaye càmm moo il faut ma ma ma recadré waat ko. Mhm. xam nga caam sama différence ak moom mooy euh, moi je suis un enseignant mhm. je suis un sportif te kenn mosuma fiche ci benn parti politique chose le dire en face des téléspectateurs et des auditeurs qui m'écoutent te xam ma mosoo jën carrément mosuma nekk ci benn parti politique et je défie tout le monde moo tax je suis libre d'esprit mosuma bok ci ben parti politique lo xamné feus na fa amul je suis libre d'esprit dafa am lo tek moy sama différence ak mom mom dafa far man faru <laughs> faruma fenn moo tax li wax yiñ fi defaa defaay fi yépp man bañuma kenn ku ma vaar loo xam ne waxoon naa ko ñu indiwaat ko mm-hmm. je ne je ne change pas alors sa question d'un de ñu un gouvernement lan moi ce titre émission. premier gouvernement du président Bassi Diomaye uh-huh. rupture ou non. c'est la question et c'est cette question là qui m'a été posée j'ai dit pour moi il y a rupture. Hmm. parce que li fi doon am ak li am Beaucoup, hmm. parce que si je devais mettre su faire un bilan du premier gouvernement rupture ou non la résultat allait y oui formation. rupture. de Ablaye Wade à Macky à aujourd'hui il y a rupture. te dañu ba ñu fallait, ba ñu fallait ni, fii ñi fi toogoon fii ci Pastef yëpp dañ doon jéem a daw res sax ma ne leen eh. amul daw res yéen a fi vendre un projet gars yi fal leen projet bi ngeen leen vendre moom la ñuy xaar ngeen mettre ko sur la terre. et cumulé et c'est en ce moment là où j'ai dit que. Quel est le pour mon premier ministre Ousmane Son Ils ont parlé de 25 minutes, ils l'ont fait. Ils ont fait des de promettre 25 minutes, Ils ont fait des Il y a rupture avec l'enfant de de Ce n'est pas la même chose. Ma formation au gouvernement, là, je ne sais pas. Je ne sais et je pense que je suis de bonne foi mais les politiciens comme moi très souvent ils ne sont pas de bonne foi parce que les nuits, dans la campagne électorale dans la campagne électorale moi j'ai toujours dit non j'ai toujours dit Et je fais cette différence il y a des propos de campagne et la réalité sur le terrain une fois que tu es au pouvoir la pour des propos de campagne je le mets de côté parce que pour accéder au pouvoir il faut charmer le peuple pour nous voter la nous voter, le et c'est ce qui fait ces coalitions comme nous, je pense que qui, qui c'est pas un parti politique hein. c'est un mouvement Nous dem rallier APR pour nous fal mais nous, devons rek ñu parce que vous voulez accéder au pouvoir ce sont des cartes dañ koy et quand le PASTEF s'opposait franchement. Fille, combien de fois on a fustigé la manière de s'opposer de PASTEF Et j'avais dit que nous, il manque de maturité parce que si nous voulons être au pouvoir, il faut nous bagner cette opposition, négocier les nous Et c'est ce qu'ils ont fait. ils n'allaient pas accéder au pouvoir. Et ce projet, beaucoup voulaient dérouler, il faut accéder là où il faut dérouler le projet. Tu es obligé de trouver des, des chemins pour y accéder. C'est ce qu'ils ont fait man loolu soxaluma ni ñu ñëw ba au pouvoir soxaluma li ma soxal mooy le projet ce qu'ils ont dit est-ce qu'ils le traduisent en acte concret sur le terrain oui ou non pour l'instant ba fii ñuy wax ni lañ doon wax man maa gis ne ñu ngi koy def ils avaient dit que pas de cumul de de mandat waxuñu ko le président il est élu il a démissionné automatiquement à ce jour-là c'est dans leur projet def na ko wala defu ko fii la ñu toogoon ma ne y a beaucoup de présidents de wadd Diouf, Macky on avait toujours parlé de chef de parti, président de la République. Mhm. Et on avait toujours parlé de cet article-là qui, qui, était sur la tête des gens. J'ai dit que nous, nous, nous avons nous, nous à l'opposition. Quand ils sont arrivés au pouvoir, il fallait qu'on Nous avons quand ils étaient à l'opposition, ils sont arrivés au pouvoir, nous. Rupture ñeneen ñi dañoo waxoon dañuy réduire le nombre de ministres ba ñuy campagne ñu fal leen ñu yokk ko ñii dañ ne woon dañuy réduire yegg si nañu dindi nañ ko rupture la keneen ki mu le secrétaire de à la présidence fii bi ñu ko fewee j'ai dit pour moi ça c'est une bonne chose loolu sax ci rupture yi la bokk parce que da nga faa fekk nit muy liggéey nga bàyyi ko fa pour la bonne marche de de de de ce que tu dois faire ñi ñu àndaloon ñoom de Wad à Macky Sall dañ doon dem ci coalition formation gouvernement dañ doon tibb fi tibb fi tibb fi tibb fi ku nekk ñu jëm laa jër. négocier. et Macky Sall quand il était au pouvoir il a toujours défendu euh, Benno Bokk pour dire que c'est un gouvernement de Benno Bokk Yaakaar ña fa nekkoon ñi ñii defuñu ko majorité Pastef Avec des gens qui ont japp jàpp naa ne xamee pas leen ci politique maître Ousmane Diagne ñoom ñu ngi ñoom de sant les jeunes comme leen ci politique. ils ont fait une rupture. alors ñu tëj ci formation donc nangul ma sama bonne foi moi je je dis toutes les choses de bonne foi. on avance ci beneen point par rapport wax na ko ci cumul yi. yéen euh, waa société civile euh, bari ngeen ci lu bari ci seen i ay jataay wala ci seen i lu ngeen di ñaawlu li nga xam ne des fois des gens yu am benn ay postes nominatifs mais aussi des postes électifs des fois muy am sax un euh, conflit d'intérêts. Euh, mhm. quand on voit le premier ministre qui dit que a un délai d'ici un ou deux mois si je ne me trompe pas beaucoup de gens nekk nga mën pour consacrer uniquement à cette fonction de ministre qu'est-ce que ça va vous faire. non dans un premier temps euh, li ngay le temps des députés maires ministres c'est révolu bah et puis c'est dans la constitution parce que regardez, soit nommé du gouvernement, on a de l'article 53 b à 56. Donc, que ni dès l'élection de ministre, donc mandat bon à hamni euh, parlementaire, non donc il dit bon c'est donc nous on s'ennuie nous nous appliquer donc nous devons nous refaire le quoi dans un premier temps. di di te aussi c'est c'est c'est un souci d'efficacité xam nga olof dafay wax benn affaire euh, xaw ma naa benn benn benn nit mënul war ñaari affaire mhm. waaw <laughs> loolu à peu près c'est c'est c'est impossible waaw donc ça leur permet ñu mën a consac euh, consacré wu entièrement ci li nga xam ni loolu lañ leen dégg te aussi nag di xaar ci ñoom résultat xam nga gis nga man j'ai aimé euh, mooy l'échange entre mooy Thiam euh, et le doyen parce que loolu dafay wane ni rek que ni ñoom ñaar ñëpp c'est des patriotes am na fu ñu teg Sénégal da am na fu ñu teg Sénégal ba nga xam ni jaral na leen ñu wax ba seen euh, dënn euh, dënn tàng pour ñu mën au moins li nga xam ne après moo ciy génn ñu mën ko jariñoo ñun ñun ñëpp donc je di que ni loolu lu ñuy rafetlu la mm-hmm. di ñaan yàlla aussi mu mu sax pas ci gouvernement bi kessé mais même ñom bu ñu demee ba jóge fi ñeneen ñew aussi lolu continuer parce que Sénégal moom mo ci moom mo ci gagné c'est ça par rapport à cela ci communauté ñu joxé deadline pour nous nga xam ne di ministres yi démissionner ci ci ci poste électif yoy qu'est-ce que cela vous fait aussi mais c'est automatique et c'est dans la constitution

ne ne ah, <laughs> def nañ ko yow au niveau national ne tax ba yi nga xam Il mais il est obligé de faire. Des groupes parlementaires groupe peut-être ñu nous naa des ñu dañ koy jox je ne sais pas donc ça c'est des calculs politiques mais pourquoi que da ngay bien des signal. da nga koy wane ci bees bees bi Sénégalais xam ne ah ñu ngi ci bon ñu ngi ci voie xam nga lu ma bëgg wax foofu Ismaël. Mhm. Sénégal ñëpp ko bokk. man ku def lu baax ma apprécier ko. Mhm. je pense que ni ma apprécier jaxaar noonu lay apprécier kenn ku def lu mel noonu mais gis nga bu ñu waree tamit ŋàññi lu jaadu. Mhm. tuddal ku la neex dama naan li nga def du yoon. tey on est obligé ñu ñu tabax Sénégal parce que Sénégal kenn moom ñu ñëpp ko bokk ni nga toog nii di wax yaa ngi bay sawaar ci

ñii ñu falagu mënuñ leen a mënuñ leen a mënuñ leen a ŋàññ parce que doxalaguñ buñ doxalee ñu apprécier Sénégalais yi vont apprécier. te yàlla nañu na nañu Sénégal apprécier positivement. comment mais du tee nag bu fekkente ne dafa am loo waxoon démb mu méngook ni nga doxalee tey mais ñu war a mën am courage ak ngor ñi li nga waxoon sa yaa xëy doxalee wala li nga waxoon. Mm-hmm. fekk dëgg moo la yàlla bëgg. fii bëri na ñoo xam ne dañ naan ju xam nga.

boo gisee ñuy wax institution mooy les institutions ici au Sénégal sont fortes nit ñu koy incarne moo suñu problème te ñu koy incarne du ñeen ñu luñ jóge ci kër gi sama exemple sax nee naa nekkal journaliste nekkal lépp mais il faut être de bonne foi mooy tax ñu mën la seppi ci ñenn ñi ndax bu ñëpp yemoon nag am ñu gën seen cër mhm. mais Sénégal li ko yàq mooy da ngay bëgg far fenn ba pare bëgg utiliser sa manteau bëgg caa wax bëgg mbubb ne man du nangam nangam laat alors que yaa yaa sax ñi politique parce que pour être là et puis li que ni politique c'est des gens qui ont métier qui politique de la ah, mhm. <coughs> comme football sportif la les sportifs nga journaliste qui que juriste chroniqueur journaliste qui animateur mais c'est Sénégal qui gagne Mais Amsole solo Ismaël nous, républicains, républicain ñu avons intérêt Sénégal jiital ko Birame Souleye bi ñu falte mais kan kan moo ci gagné ko dul cees Thiès bu amee tey ñetti miss nañ ñaan yàlla Thiès gis ci boppam man bu Thiès Sénégal Thiès amul woon miss maa njëkk a taxaw ni nit loolu du yoon mais bu ñu falee moom frère Birame Souleye moo koy félicité en passant nit ku courageux nit ku baax nit ku am valeur nag ñu fal sama papa maître Ousmane Dia mhm. mais dañ koy félicité parce que Thiès moo ci gagné mhm. ba ci Serigne Gueye Diop nekkoon na si ñun l'industrie nekkoon na benn boo ko yaakaar mhm. dem ci coalition Diomaye président mhm. bu ñu ko falee du xool parce que mhm. dafa def sànjara loo xam ni quelqu'un de bonne foi da xam ni kii Sénégal da ko soxla industrie ak commerce oui da ko dafa prouvé ba pare daa nekkul passé mais dafa nekk ci coalition bi gagné ñu ñoom ñu nommé ko ministre mais ñëpp apprécié euh, ministère am parce que du ko mën

ñu ne cumul de fonction yi te ñu ngi jooy aussi chômage yow nga bëgg nekk benn nit yor lu ci lu toll ni fukki poste ak ñaar day mel ni Sénégal kon amu ñeen ça veut dire que c'est quelque chose boo xam ne ban jàngat nga ci am. gis nga euh, ISO Sénégal du du pays do en fait comme waa Cameroun nañu waxee les lions de table. Hmm. Sénégal suñu askan dafa dafa nakkaree jiite. Hmm. du askan mi nga xam ni dafa dafa dafa yombee jiite donc pour pouvoir diriger ce peuple il va falloir tey jii nga nga mën a consacrer wu carrément. ci peuple bi cest à ci li nga xam ne moom lañ leen dénk pour nga mën ci doxal ci askan wi il va falloir nga consacré tey bu fekkee ñoom dañoo ñëw ne mbiru cumul yooyu noonu dañ ko fi euh, dindi wala euh, tey jii képp nga xam ne nommé nañ la euh, ministre li nga doonoon poste bi nga doon occupé dañ ko fi bàyyi je pense que c'est pour permettre à cette personne de mieux exercer li nga xamné ne euh, lañ ko parce que tey jii mhm. ñu euh, def la euh, ministre benn mbir yow nga nekkaale maire leneen wala nga nekkaale ci benn fonction tey ni nii mënoo c'est-à-dire di xalat noy développé fait en même temps di xalat noy développer souvent nous dans la Bible on dit on ne peut pas adorer deux maîtres on ne peut pas avoir deux maîtres soit tu aimeras l'autre, soit tu haïras l'autre. bien nak lañ on ne peut pas servir ci ñaari sphère soit bien nga consacré wu ci ben Euh, bàyyi euh, beneen bi mu mu mu xaw a am na nu muy demee soit nga consacré wu ci boobu bàyyi beneen bi maintenant pour nga mën a indi benn benn apport significatif ci li nga xam ne moom la ñu di je pense que c' est c' est une bonne chose nga dema nga détaché wu ci lépp li nga xam ne yaa ngi ko yoroon. mais mën a attaché carrément seulement ci li nga xam ne. se mettre effectivement donc tey jii je pense même ça va au-delà sax ñuy wax ci mbiru tey ji euh, euh, pauvreté wala chômage bi nga xam ne euh, moom la ñuy wax parce que pour man sax ci ci benn anam lay doon parce que foofu noonu il va falloir aussi ñu am ñeneen ndaw yu comme yu am compétence pour mën ko lijjanti mais tey jii ni yow mi nga xam ne bëgg nga doxal ministère bi ñu la jox bàyyi lépp même si euh, ce premier ministre y l'a bàyyi selon la constitution. parce que l'homme ça montre que. mais ce n'est pas le rappel parce que ça se faisait. mais bien sûr mais mais ah, peut être ce rappel là qui l'a eu. wuy parce que euh, bu qu'il que dans ko def. par par par respect à la constitution ça montre que tu jii un euh, Sénégal am na fu toll ci amna ben na considération yi nga xam ne moom nga parce que constitution bobu non moy c'est la mère de nos lois. mais nak Isa gëj nañoo gis ab ministre nek maire bu démissionné. amu fi won sax mais mais non léegi maintenant il va falloir que donne bi il va falloir que donne bi ñu daal di bàyyi xel li xam ne moom moo di. mais c'est ça c'est pourquoi ma ma ma ma ëppale mais wax nako ko kii il a donné il a donné on il a donné une deadline sax la joxe démissionner rapidement. mais il a fallu que mu am genre caractère strict pour non parce que nous avons souvent bu dirigeant bu mérité dirigeant bu euh, dirigeant il va falloir aussi ñu am strict nga xam dañ koy fonctionnement. Mm-hmm. quand on parle de nos ministres bu faites ñom dañ leen di rek et ça sera pas en faveur de la population bi ñuy diriger il va falloir nag ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fi teg c'est-à-dire liggéey wala ñoom ñoo nekk seen supérieur mm-hmm. ñoom euh, benn caractère bu strict bi nga xam dañ koy exercer ci seen kaw bu ko defee ñoom ñu mën a yóbbu Sénégal tey ji fi nga xam ne fa la parce que euh, Sénégal lu ñu mënti wax am na fi nga xam ni nañ mu egg fa ba léegi mënu faa egg on se pose des questions lu tax ndax tey ni euh, manque euh, de c'est-à-dire laxisme la ci côté euh, dirigeant yi mom xam la ñu am ndax tey ni manque de considération bu jugé ci suñu jëwriñ la wala lan la exactement wala da am lu ñu waroon exercer ci ñom te exercer wuñ ko ba tax ñom ñu am nu ñuy doxalee Sénégal eggu fa tant de questions yi xam dañuy poser lan mo waral Sénégal eggu foofu non ba léegi on espère. qui qui était le maire de Saint-Louis. le maire de Saint-Louis. oui qui était le maire de uh-huh. Il n'était pas ministre. Ben, il va falloir rupture mais maintenant côté rupture mhm. va pas dire du côté personne mais du côté idéologie incarné côté maire de fatigue mais résultat résultat point d'interrogation mhm. oui même bu fekkee tey jii gàgg nañ cumul yi on s'attend à ce que ñoom ñu indi. lu nga xam ne daf ne mais ñoom nañ est-ce dañ ñu ko point des résultats nous. très bien c'est ça sànq déggul ma ñëwaat ci match bi match bi day doog a tàmbali. commencé classement classement la ñu joxe. bu bëri joxe critères yi xam nga li nga ne kat. ku ku mooy li li Guardiola defoon. ñëw ci équipe bi ñu jënd ay joueurs mu ne kat ku bëgg football sama équipe def na ko Barça si je ne me trompe pas faaw nga am poids bi. Euh, Nasri mi ngi koy expliqué la dernière fois bon image laa joxe rek parce que football dama ci gëstu lu bari. mu ne poids bi boo amul doo football sama équipe. mais mais mais critères yooyu ngay amal amal poids bu la neex. amal niveau bu la neex. amal niveau bu mu mënti doon ba tax ñu daat lay indi mais tey jii li tax

nañ def lii nañ taxawee nii bu ñu nekk di wax rek mais bañ demee ci match bi kooku loolu wax moom moo yàq match ba match jeexee gars yi dañ ko doon reetaan di ko tooñ équipe bam dañ ko doon tooñ donc juste pour dire que c'est pas commencement bi mooy déterminer mbir on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement parce que mm. c'est à la fin qu'on saura carrément ndax attaque mais si tu rates le départ si tu rates eh, départ départ. pas besoin de pas besoin de euh, et sur les règles que tu vas pour les résultats est-ce que tu vas pas euh, non c'est ça il y a des critères d'abord Il famille d'un ni et sur la base de ces critères y a le choix. Il y a xam nga su fekkee nii c'est le problème mooy nga nekk un parlementaire c'est réglé par la constitution article 55 ans hein. mm. donc ba ñu toftal ci nga exercer une fonction bu nga xam c'est public wala privé mm-hmm. bu nga xam ni ciy am comme boy def sa poste mm-hmm. ñu ne loolu de bu ñu ministre da ngay ciy faxasu ba set donc le seul problème qui n'a pas été réglé moy euh, moy les maires mm-hmm. te gis nga fofu xam nga constat bi faral di def lan gis à chaque fois suñu falee maire ministre da ngay gis ñi nga dañu à l'état civil Nous ils ont tous les problèmes du monde. Euh. ñun fii à Thiès <laughs> on a été victime de sa fille oh, au temps du président euh, de Idriss nga dañ ko doon maire après dem nangam ak am ainsi de suite donc je me dis que ni mon su que ni rappeler c'est par rapport juste moi, euh, si poste maire mm-hmm. mais euh, pas besoin si côté député côté ah, c'est déjà réglé par la constitution. donc on n'a pas besoin. pardon. non en tout cas la je fi may fi may je je wax ni carrément euh, loolu dañ koy dañ koy dañ koy dindi te jox na leen tamit euh, date gisu gisu ba si euh, problème mm-hmm. l'essentiel daal comme ni ko iso Isaac waxee gis nga dama yaakaar ni li tax ñi nga xam ne moom moo nekkoon suñu ministre yi doon échoué contrôle bi moo desoon d'après moi contrôle bi moo desoon ndax yaakaar naa bu la joxee benn loo xam ne moom nga war a def ci benn domaine nga war ci liggéey tey ji bu fekkee am na contrôle boo xam ne dafa strict def suivi laaj la li nga liñ la joxone ana fan nga ko dugal ana fan nga ci li nga problème am mais ak gouvernement bu premier ministre bu yees bi communication ak discours yaakaar naa ne mhm. parce que suivi dina contrôle dina am ndax te li tax mbir mi yeex mooy dañ doon diagnostiqué dañ doon xool euh, nit ñi nga xam ne moom lañ fi war a teg pour début comme bi ñu ko waxee classement bi daal di mën a baax te classement bi nga xam ne teg nañ ko am nañ ci yaakaar te suivi bu amee problème mën na bañ a am mm-hmm. mais cumul bi moom comme te dindi nañ ko problème mën na mën na ñàkk ku nekk rek da ngay focus ci li nga xam ne moom la ñu jox ci sa domaine mm-hmm. ministre ministre des forces armées euh, focus ci duñ ko jox beneen ministre focus ci duñ ko jox mm-hmm. bu ko defee problème du am Aïssa ah, match Sénégal je pense ci biir kan première première match si je me trompe pas classement bi nga xam ne dañ ko génnoon ñaata nit ñoo ñoo ko critiqué après match nit ñoo apprécié ci kii bi Mais si tu forces le départ, tu n'as pas espoir <laughs> Mais, parfois, parfois départ à la fin non. <laughs> on vraiment. donc on part par des critères. c'est peut-être après voilà c'est ça. le début mais à la fin euh, mon cher mon cher <laughs> bi may wax naan jàngalekat laa entraîneur laa parce que bu ci nekk danga am vertu yoo xam ne dama ciy essayer ndox xam nga entraîneur quand je parlais d' entraîneur c' était ça que je voulais faire image laa doon joxe. Mhm. un entraîneur il choisit des joueurs contre. da ngay tànn ci wolof da tànn pour xam ñan ngay dugal pour ñu jouer la sa match. Mhm. ñi nga tànn nag mun nañoo dugg ci terrain bi weere comme ni nga ko waxee su boobaa ñu ne saa sa choix baaxul ñii nga jox poste bi mënuñu ko régler. Nous aussi loolu lañu def xam nga man bu ñu choix ba maintenant je les attends pour le match. ci tu doyen. ci ñoom ñoo ko dafa war dañ loolu moo fi yàgg am. ku ci ko fi sujet te kenn dindi ko. ñoom bi ñu ils ont donné le ton fii dañoo toogoon fii ñu ne euh, jiite soo ñeneen ñu la yow nga ne ci yaay njëkk exemple ci ñun ñëpp ñu rafetlu président Diomaye bañ ko falay mu démissionné il a donné l'exemple nekkatul parti nekkatul euh, chef de parti nekkatul secrétaire général. il a dit je je veux être au-dessus. Mm-hmm. ba paré annoncé lan la bëgg def au niveau des partis politiques il l'a annoncé man j'attends le général ci loolu nga xam ne wax nañu ko pour ñu waxtaan ak les les partis d'opposition jéem a xool nan la rationaliser les partis politiques daf ko annoncé c'est dans le politique match bi man foofu laa leen di xaar ci match bi yi ñu wax yëpp yaa ngi fàttali ko bi ñuy wax ci euh, euh, président euh, Sonko bañ naan fi ma ne non moom c'est c'est l'entraîneur c'est à lui d'aller choisir ses joueurs noonu laa ko waxee woon fii mhm. soo tegee benn ministre dañ na dañuy da ngeen di jóg ci mbirum emploi jël nga kenn teg ko fa pour les emplois les gens t'attendent su fekkee ne waajooju deful li nga wax c'est à toi de le limoger et de chercher un autre on t'attend sur le terrain ministre commerce et consomme bi ñuy laabaan baatu ju nañ ne dund gi dafa cher ñoom ñu wax ko le premier ministre waxaat ko il choisit un ministre pour ça on attend te waxoon naa ne loolu mënul xaar dañ ko la l'attend sur le terrain. Mm-hmm. d'ici quelque waxaat na ko tey d'ici quelques mois su ñu gisee ne dund gi wàññeekuwul nga ak nangam ñu ne la ngeen ñu promettre defu leen ko. Mm-hmm. loolu mooy match yi yooyu mooy marché yi on les attend la bas mais sur le mm-hmm. le choix man mënuma ci wax dara lu préjugés favorables te li nga xamné ne nañ ko ñu koy def c'est ça le problème et on les attend maintenant au niveau du match pour les pour les juger et rassurez-vous xam nga cumul bi yow li ngay wax ni ñun on est à l'aise pour ça cumul bi Birame Souleye bañ ko ba mu démé fële fi lañ ko fi sujet ba ci émission bu mujj bi balaa gouvernement bi ma jaay bi mu toogee fi waxat nañ ko elle a essayé de défendre ça on lui a dit on n'est pas d'accord sur ça et Cheikh Mboyne aussi bi waaw ñomit it jëm na ko on n'est pas d'accord sur ça te Ousmane Sonko bi mu falay gouvernement papa dafa ne gars yi dem leen ngeen démissionné ci kon kay loolu mais man damay xaar ba kenn bañ a démissionné ba mu maintenir ko fi. mais il a demandé aux gens de démissionner. ba ñii nag defuñu ko woon bi ñu fi nekkee loolu mooy rupture bi. defuñu ko woon ah ñoo ko fi annoncé woon te defuñu ko fi loolooy rupture yi. il y a un décret qui a été abrogé ñi ñaa ngi wax ci légalité beeg déet mooy euh, ce 29 mars ci euh, li nga xam ni moo di euh, conseil supérieur de la magistrature. oui oui oui ci décret bi nga xam ni le 3 ñi ngi koy wax le président Bassirou Diomaye Faye da ko abrogé mooy cour d' appel au euh, cours suprême oui ci lañu euh, def euh, conseil supérieur de la magistrature le président Macky Sall un décret am le 3 avril le président Bassirou a fait un décret abrogé lolu ñi ñi wax légalité c'est légal ou c'est pas légal non en fait le président de la République il prend des ordonnances et des décrets en vertu de l'article 43 donc du point de vue de la légalité n'y ci wax dara le président Macky Sall quand il prenait ce décret là il était encore en fonction donc c'est légal de non ci ci ci abrogé c'est-à-dire abrogation bi bon je sais pas xaw Baham. ba euh, parce que les gens après dañoo waroon xaar. un dafa xaar ba dem conseil supérieur toogaat. non en fait est-ce que est-ce que il y a eu donc cette consultation là parce que tamit dafay un parallélisme des des formes. Hmm. donc Macky Sall Diaron, bon nommé euh, le mooy le gars là moom aussi foofu la war mais man li ma si gën que ni dañuy dépasser un peu euh, le point de vue légal xam nga vous bu que da ngay waaj par élégance je me dis par élégance dafay am ay actes yu nga xam ni ko éviter pour éviter le mel c'est-à-dire que ni yow ki la nar succéder donc ils mettre dans une situation bu nga il est je sais pas euh, comment comment le dire mais il n'est pas à l'aise mhm. ndax mu continuer woon li nga def alors que mom amoon na ci benen xalaat instant bi mu doon waji jël fonction hein? mhm. wala mu ñëw dindi ko ba mu set pour def li mu bëgg def en tout cas lima ci lima ci japp moy que ni euh, le président de la République il montre son autorité parce que am a ñu bari ñoo xam ni doon ñoom la mën nañu wax euh, comme que ko fi moment donc on va pas euh, agir pour abroger euh, l'acte du président de la République donc il commence à incarner mooy attribut yi nga xam constitution jox ko ça loolu aussi dafa am solo dafa am solo xam nga gis le gars biñ ko ba pare donc nous gis une campagne ah. pour dire vrai campagne pour xaw la <laughs> qu'on se dise la vérité mm-hmm. ah. alors il accède au pouvoir il commence à montrer du cran waaw mm-hmm. ah. vous euh, discours sax ni mu échelonné oh, tu sens que ni vraiment il commence à prendre du li mm-hmm. ah merci c'est vrai <laughs> c'est ça et ça c'est important c'est important parce que problème bi yëpp xam nga sénégalais nous sommes bàyyi weer ci benn fan. dès l'instant le gars il dit moi, mooy man may moom il s'attend à avoir un président de la république bu nga le premier ministre bu muy parce que non c'était évident que euh, Ousmane Sonko devienne le premier ministre liñ doon xaar qu'il soit un peu au dessus de euh, du président de la république loolu la ñuy quoi. <laughs> alors que sur d'ailleurs de constitution gis nga l'article article 26 52 donc on parle du président de la république pour wax le pouvoir de le gouvernement c'est euh, le premier ministre qui moo c'est quelques articles hein, cinq alors même euh, le pouvoir de contre-signe euh, du premier ministre dafa am ay articles yu nga xam dañ ne non fii moom euh, premier ministre amul lu mu ciy laal. Mhm. waaw donc donc article diggante 42 43 nga dem jusqu'à ay ay 90 donc amul lu mu ciy laal. Mhm. c'est pour dire que ni rek le gars bi nga xam ni moom lañ gisoon ci moment campagne bi ak ki nekk le président de la république non il a pris du galon te vraiment loolu dafa nekk lu nga xam ni euh, sénégalais yi war na dalal seen xel parce que le président de la république c'est une autorité d'où fonction euh, c'est comme euh, euh, la fonction de premier ministre beaucoup là. Si vous da ngay décision même si même si y ni am la dernière décision vous revient alors que ce fait que le premier ministre même avec le gouvernement c'est une fonction collégiale mhm sans que ngi dégg d'ailleurs sax euh, madame muy expliquer si par rapport ak euh, contrôle ak mais loolu ça a toujours existé Le conseil des ministres hebdomadaire. mais qu'est-ce qui avait fait défaut donc. non xam nga wax nañ ko léegi ci bi ñuy tàmbali mooy que ni gis nga. mais parce que su ma déggee tout est tout est là tout mais on a toujours pratiquement on revient toujours à la case de départ. bi si bi si njëkk mooy gis nga bu fekkee ni premier ministre bi nga quand il donne une instruction mu fanaan mu ne def nangam ki ko a def di <laughs> mais y a problème y a problème Benen bi moy lan moy nit ki ci bopam su fekke ni il n'est pas pétri de valeur mu xam ni mom dafa bëgg liggéey day liggéey ñi ko fi tek dañuy xaar ci mom ay résultats mais man sénégalais Sénégal lay gis ñu fal nit ministre wala mu gagné une euh, euh, mairie wala mu nek député mu jubilé di di je le dis comme ça hein. quand j'ai vu Barthélémy Diaz nous gagné mairie Dakar nous gagner di jubilé le gars il faisait comme ça non je dis mais tiens problème amna. problème amna. parce que nit ki li koy xaar mom sax parce que dafay am des des sénégalais yu nga xamni ni ci dans des souffrances atroces. man euh, gis nga j'ai j'ai travaillé si ben ONG di am possibilité dem dans le monde rural c'est juste ben parenthèse rek. Mhm. pour ñu mëna xam sénégalais yi manam ci précarité bi ñu mais ñu nga xam ni da ngay ñew ñu ne dañ lay nosal dañ lay fétal ñu togu ciép ne ceebu jën la do ci gis jën. bisaab bu weex rek ngay gis kon ñooñu gis nga fi ñu toll. te ñoom dañ ciy noosa kon disparité boobu gis nga ko kon ce qui dire que ni ñii ci li maanaam li ñuy xaar ci ñoom man je me dis que sax tey débat yi waroon nañ ko yóbbu feneen fu gën a fu gën a poussé un peu d' accord peut être bon c' est bien ñu xool ba xam rupture nangam ak nangam mais wax effectivement li nga xam ni. Moi, les sénégalais dit di xaar ci équipe bi. aussi donne na ci nous ñoom parce que aussi la télé a une audience ñu dégg ñu nit ñi soxla ku les services sociaux de base donc ñu mën am bu nga <laughs> am accès ci yenn yi nga xam ne. yu ah, am ñoom loolu la ñu wax ah, ci ci préambule bi. bi ñuy bi ñuy liste waay bi bi ñuy liste bi muy def léegi. liste waaw c'est c'est pour dire xam naa damay bañ euh, damay bañ nag. Euh, caam caam caam taakale ma un peu. man gis nga j'ai c'est-à-dire waaw dina ma taakale xam naa man dama def deux remarques. Mhm. mooy le président Macky Sall biñ ko njëkkee fal quand il parlait de l'administration donc public qu'est-ce qu'il disait que ni service camaraderie mounoul mais n'en ko je dis tiens problème le président de la république mm. ñu le la Nous commençons à dire khalat lolo. alors que le gars il vous parle de dématérialisation yenn une yi ba nga ni nit ki doodul jokkalante directement ak nit pour seytaan di dugg fofu ba ñuy wax ay waxu corruption ay yenen ak yenen da ngay gis mhm. donc da ngay peser carrément différence bi et l'espoir est permis moy li li iso doon wax sànq il faut euh, donc se baser d'abord sur des critères pour faire un choix judicieux ba nga xam nit ki li ngay xaar ci moom parce que askan bi en ce moment mm. non gis nga booy yi dem voter ji yëpp boo dem voté ji dafa am lu ñu leen jaaya ah, te amna ci lu nga xamni d'accorduma ci ak wa passef bi ñuy campagne amna ci xalé yu bari yu nga xamni liñu japp moy dañuy tok muy dox dañuy tok muy dox. toog muy dox jeex. <laughs> te ñoom lañ toog muy jeex na. c'est-à-dire quand quand vous cherchez de l'emploi yow amul wa formation xamoo après yow bo jugee fan ngay jom pour seeti ko. Oh. en ce moment lan lañu soxla pour nga dem jangiko. ko. Oh. mais problème day am. état bu la wax ni la mën na régler moy ce problème là. Euh, né non day ñëw rek comme ku yor ben affaire bu nga xamni ils vont tout faire pour mettre les conditions à leur disposition. c'est ça motax d'ailleurs man quand je vois euh, euh, ministère euh, mooy bi. Euh, le ministère dirigé par Abdourahman euh, Diouf, Diouf mhm. de l'enseignement supérieur. J'ai beaucoup aimé et de l'innovation. Mhm. Parce, parce que qu'on se dit la vérité, Gagne Bouane là. moi dafa bëgg ay affaires yu nga de dafa bëgg quoi def lu nga L'enseignement supérieur recherche et innovation. <laughs> oui c'est ça. donc ci loolu pour rejoindre un peu <laughs> un peu si ci d'ailleurs lañ leen di gën pour au moins ñu saafara jafe-jafe yi nga xam ni moom la askan wi di jàmm maa ngi woon ci ci ci ci ci abrogation loi bi nga xam ne euh, décret bi autant pour moi euh, wax na léegi élégance ak inélégance selon bu lan ngay jàngat ci loolu waaw mais xam nga li mu ci wax rek jàngat boobu la la ñëpp def sànq rek maa ngi li professeur Ismaïla Madior hmm. mu ci wax mais ça c'est purement juridique yoo xam ne peut-être c'est attaquable bon mais yooyu amul solo li am solo mooy deux aspects qui ci am solo. Mm-hmm. le président Macky Sall en prenant ce décret là tout le monde est d'accord que c'était c'était légal. Mm-hmm. de la même façon président Diomaye également bi le décret d'Abroger, abrogé il était président. Mm-hmm. maintenant il ñu a ci élégance bi tey y a ni mënoon na mënoon gën a quoi comme on dit. parce que day euh, c'est une manière de dire à ton prédécesseur que vraiment euh, alors que bi nga a ce discours bi mujj bi danga ko danga ko danga ko quoi mhm. da nga ñëw remercier ko wax ni vraiment contribué na mhm. ci vraiment édifice bi wax bu rafet nga xëy def la contraire moom ñaari ñaari extrémité doo ko mën a doo ko mën a doo ko mën a juger quoi mhm. yaa def discours 4 veille 4 avril wax ni ñoom ñëpp muy Macky muy Senghor Abdou Diouf def nañ vraiment lu rafet ci ci ci ci foofu sax la ñëpp njëkk wax ni ah ñii kat kon ñu doon xalab système <laughs> bi tey daan dañ hommage waa waa système bi. Mhm. Mhm. alors nga xëy kooku li mu defoon nga dindi ko c'est inélégal. Mhm. man jàpp naa parce que tey loolu bu fa demee day précédent dangereux lay doon. parce que ëllëg mun nga fi jóge sa morom ñëw def la même parce que ñëpp dañ jàpp ndeket bu ko def ki nga xam ne moo nekkoon Ousseynou euh, ki ki mu raam dafa retraité moo ko def nekkul lu mu def fay xëy na fu mu ko defee la gars yi ko jugé. mais dafa nekkoon ci ci ci ci circuit bi. maintenant dindi na na mais jàpp nañu c'est pas c'est pas du tout élégant. Mm. moo na gën a rafet mais yoon moo ko may parce que moom la Sénégal yi nag wóolu. Mm. léegi nag euh, loo din rek na nga fa def lu ko lu ko gën. loolu la ñuy xaar ci. Bassirou euh, mm. Diomaye jomaay Faye. Sénégal également jàpp nañ ni ku fi mës a juge li ko doon dimbali mooy ki nga remplacé mooy nekk ca ginnaaw ku ne xam nañ le président Macky Sall Abdou Diouf moo nekkoon ci ginnaaw parce que réew du caaxaan la preuve. bi falé falee Diomaye avant sax muy passation guddi gi dem na seeti président Macky Sall. ah bon ah oui c'est-à-dire que tay amna lo xamni xam ñun ñoo fi nek rek di politique mais politique leneen la amna dossier yoo xam ba fi wax ni ni da ciy traité ak le président Macky Sall. ah ça c'est évident. Mm-hmm. non c'est normal c'est-à-dire que lool moy li nga xamante lool mu mu mu munoo munu Sénégal ni muy doxé mm-hmm. ku nek am nga koo wéeru woon kii wéer Abdou Diouf wër woon ci Senghor euh, Abdou Abdoulaye wër woon Abdou Diouf diko diko ci génn Senghor. Euh, Ousmane Tanor Dieng di ko ci di ko ci di ko ci génn di ko imputé yenn dossiers yi Macky Sall Abdou Diouf di ko génn ci yenn di ko di ko di ko génn ci yenn questions yi Diomaye également ñëpp gis nañu rapprochement bi am moom ak président Macky donc loolu Sénégal moo ci gagné. li ci def nag mooy naka lañuy ñuy euh, changer mentalité ba ñu xam ni tey réew mi. mun nga ko tabax quelle que soit position boo boo nekk mën nga kon mën nga apporter sa pierre à l'édifice. quelle que soit position boo boo nekk. loolu li koy waral nag mooy ñu bañ a def table rase. Hmm. table rase boobu nag dafa bokk ci jalon yi ngay njëkk a pour nga commencer ko mooy kii jugee na fi def na li rek pour wane ni man ñëw naa nekk naa dara rek naa dindi lii loolu mën na ne lu mu yee. Hmm. loolu nañ ko éviter na rafet daal cest à que fexe ba yow yow mi dégg li baax ci ki nga remplacer consolider ko. Hmm. li bon nga dindi ko.

ñun en tant que syndicaliste lu ñu yàgg kaas la. Mm-hmm. da ngay nekk ci benn nga war a avancer. yow pour nga avancer da ngay jóge fii nga xëy paas tam Dakar mii seerang ba ngoon déposer sa dossier parfois sax la yàlla xam doy léegi bu dee mën nga toog fii yow nga war a avancer nga toog fii benn clic rek tax ñun sa ak dossier accédé ak foofu ñu ne léegi pour nga euh, def pour nga changer grade wala nangam da ngay indi. casier judiciaire loo xam ne yow déposé woon nga ko pour nga nekk fonction fonction fonction publique loolu mooy ce, ce, ce cadre carte d'identité foofu noonu am nga fond dossier mais chaque fois boo koy def benn amendement dañ lay laajaat même dossier yooyu noonu

manam yow am nga 35 ans am nga sa CAP am nga sa am nga sa diplôme ñu intégrer nga nek fonctionnaire do gën intervalle 35 ans bu nga nek fonctionnaire parce que boo ko boo ko rombee rek yaa ngi décisionnaire. décisionnaire mooy ñi xam bo retraité yow par par par kii ngay fayal. par hein oui c'est par par kii nga ko léegi sax xëy na mag nañ ko. waaw changer on a ko mais batay ci côté point de vue rémunération amna amna amna na am ay conséquences donc yoyu ay réformes la yo xam vraiment ñun dañ ko dañ ko yakanti te dañ ko yàgg kaas amul tey boo jëloon suñu plateforme yi ñu teg table gouvernement yépp nag de de de Wade à à à à Macky yépp mi ngi mi ngi mi ngi mi ay ay points la dématérialisation mooy tey au lieu nga da dem Dakar pour déposer sa dossier mais nañ koy di Thiès ñoom euh, commencé nañ sa fekk gouvernement commencé na ko dafa ay bureau xaw ma nañu ko tuddee waaye guichet unique merci beaucoup donc loolu bu ko defee ñu ñoom ci même casier kii euh, casier judiciaire ak euh, bonne vie merci yooyu tey bu fekkente ne mën nga ñëw toog sa ordinateur nga nga def dugal ko ñu am sa kayit nga xëy dem ñu envoyé loolu aussi moo ñu gën a ñu dem tax rang fële officier d'état civil bu am extrait nga yëpp passe xale bu def examen yow ñu ne la euh, kii ñu ngi grève ñu tudd sax mairie ñu ngi grève yow nga tardé ba mënoo def sa ex concours bi ndax lii nii bu ñu ne dématérialisation kay dañuy applaudir donc pour dire que il faut féliciter aussi le maire mooy euh, Diop Babacar Diouf il est en train de faire cela. Ouais. Bah, bah. Donc j'ai des étudiants à l'ICI. Non, ça a avec, ouais. euh, avec Tala. Oui, ouais. ça a commencé avec donc, Ils sont là-bas. Voilà, ils sont là-bas. Nous avons commencé à réformer. Du coup, du coup, du digitaliser. Ah. Lolo vraiment dañuy applaudir té ñëpp ko wara encourager mm-hmm. parce que buñ xamone ni ki ci gagne ñun askan ñu ci gëna gagner sax que gouvernement. Ouais. Lolo mom très franchement, c'est des réformes xam ñëpp koy xaar. Voilà. C'est pas pour rien qu'on vous appelle le médiateur. Merci beaucoup. <laughs> Alors, donc, Ndóor doom mu dugal laaj. <laughs> mu dugal quoi non bàyyi mu dugal laaj. kon kay mën na mën nañoo. non bàyyi mu dugal laaj. non mën mën nañoo mën nañoo jàpp ne loolu lépp bu bu bu bu yembee bu taxawee ba nga xam ne euh, comme ni ñu ko bëggee woon am na. Mm, mm, mm. mën nañoo jàpp ne gouvernement bu yees bi moom moo gën guvernement bi. waaw non loolu moom bu bu très franchement bu jàllee. Sénégal dañu applaudir parce que dafa bokk ci li ñu tardé. yàlla xam na ni carrière yu bëri brisé wu noo ci li ma la wax nii. te loolu moo ñu gënal suñu jëmm ñun carrière sa carrière professionnelle moo ñu gënal suñu appartenance gis nga dama la jox benn anecdote nga baal mu iso dañu grève syndicat dañuy grève ñu grève grève bu métti ba ñu bëgg dem année blanche man maa am chance jël syndicat yi yóbbu leen ci ma ci président Macky Sall jaale ko ci première dame Marème Faye Sall ma ko nuyu en passant bi ñu ñëwee toog ma ne ko président man yow laa àndal mais gis nga lu jëm ci suñu question carrière bi man faruma ca yow. képp ku leen di jàngalekat dañ laa contre dañ leen nax man jàngalekat laa te contre ma la yàlla ànd waaye sama carrière moo ma la gënal yow problème jàngalekat yi ku ko wax ku la wax politique dalay nax jour boobu la ñu réglé problème jàngalekat yi yokk indemnité huit pour cent bi problème yi amoon yëpp moom man man caa maa xam foofu la turu médiateur yi tudd pour man la man du politique lay man dëgg lay dox et pourtant loolu bi ñu koy kaar ñu bëri ñoo ne non oui président la contre c'était pas ça dañ ko dul wax dëgg les présidents amuñ problème entourage toujours am naa ci moom yaakaar yàlla nañu ok après jébbalu day am. <laughs> jébbalu si <laughs> non da jébbalu si ñëw ñëw. <laughs> am mooy le président a ñàkk mais mais mais xanaa nekkatu leen benn boo ko yaakaar ba tey. Hmm. ah ci mouvement bi ah d'accord accord d' accord. alors doyen. oui. votre tout nouveau ministre des sports. Hmm. da nga amoo ah, ah, ci ay <laughs> ay xabaar. parce que waaw keroog rek kaas naa ko fii bi ma ne bi ne ñoom bi ñu waxee. waaw dugaluñu sax benn moo ci ci sport alors que. ah laaju ñu benn moo ci sport moo. waaw laaju bu ñu laajee rek ñu tontu ah. non waxuma la de. ah moo gën de ah, ah, ah waxuma la gouvernement bi laa wax. ok Ousmane Sonko ak président Ousmane Sonko laa wax ak président Diomaye bi ñu waxee seen discours waxuñu sport nga ma nañ gaa ñu waxuñu sax benn moo ci sport quoi. mais du yow mais sa intervention mujj moom dama ci d' accord ak yow. moom sama intervention yëpp dañ ci war a d' accord. <laughs> dama ci d'accord yooyu ci yooyu la ñuy xaar. nañ non man mosuma wax intervention bi d'accord yow rek yaay compter <laughs> mais yooyu yëpp nag je yooyu yëpp nag gis nga hmm. yi nga wax nii yëpp hmm. nag. dafa bokk ci yi tax ñoom bi ñu vendre pro bi ñu vendre euh, projet bi askan wi gars yi voté leen parce que yi nga wax yëpp c'était des problèmes. dinaa la ci wax benn boo xam ne moo gën a kii teg ñoom wax nañ ko fi mu nekk nii xam nga ñu ngi wax naan. léegi boo waree am carte dant rek euh, ñu dugal la ci fichier électoral bi

obligatoire moom def révision. dem voter ji loolu moo doon obligation. mais c'est une question de choix. de force non non non mais bu la neexee nga bañ. non non non attention euh, beneen xam nga yaa wax ay kii une fois j'ai j'ai posé la question dem naa euh, ministère fini nii euh, tribunal. Mhm. xale yi di di def examen. Mhm. on leur demande. le certificat de la naționalitate senegalez. certificat. Naționalitate senegalez. xam eh. nga opresc examenul boi, dacă boi dăm ce fonction publique on te demande ça. j'ai dit au gars là ma ne ko mais xam nga yii yëpp ay lenteur la. li li gënoon a yomb kay mooy yow boo amee carte d'identité nationale. automatiquement on doit on doit dire que toi tu es tu es de nationalité sénégalaise booy déposer ci carte d'identité nationale. nañu demandé loolu et puis c'est terminé. si tu as ta carte d'identité nationale tu es sénégalais. Mhm. jarul suñu lay laajaat certificat de nationalité <laughs> mun nga am carte d'identité nationale ba pare te tu n'es pas sénégalais. Mhm. alors que man dama jàpp ne boo amee carte d'identité nationale <laughs> tu dois être sénégalais pour l'avoir. Mhm. kon jaratu ñu lay laaj certificat yooyu mooy ci yi may wax ne ce sont des ay affaires yu ndaw la yoo xam ne peut-être moo dul indi sunu sunu li ngay wax ci syndicat yi mais. moi j'étais responsable syndical Je hein. suis benn moment boo xam syndicat parce que y a des plateformes il y a des points de revendication ça fait 100 ans mu ngi chaque fois ça revient ça revient c'est pas satisfait et ça revient toujours nit ñi dem grève loolu aussi manque d'efficacité de nos syndicats Si déposé benn une plateforme kay bu ñu ko satisfairewul tey beneen plateforme bi ñëw boobu dafa war a nekk ci point fondamentaux pour nous satisfaire comme bala ngay dem ci beneen point mm-hmm. mais dañ ko fay bàyyi demaat ci ce sont des rêves moo man li ma yu bari d'accord na ci ak yow su foofu xaar nak le gouvernement la man fa laa leen xaar xaaruma leen feneen fu dul foofu mm-hmm. li ñu wax ak réforme yi nga xamné annoncé nañ ko nañ ko mettre en œuvre nit ñi avancer mm-hmm. et que euh, ñu baña nek nak nag une opposition radicale leneen li wax ko légui loolu dama lay wax rek cham dama dama dama lay dama la ci rassuré non dafa nag dafa am leen lo xamné dama bëgg ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu il faut pas qu'on se leurre yàgg naa toog ci benn ay débat ma ne leen euh, nit ku nekk am nga koy woteel koy far kuy woteel rek am na koo faral. Mhm. man bokkuma ci journaliste wala chroniqueur yi wax naan far bu du ma woteel de ñëpp ay wote kuy wote rek am na koo faral. non loolu ñëpp ko xam ñëpp xam na ne da ngaa far. non non yow mënoo koo xam te je parie ma main sur le Coran xamoo ko. bu ñu paree ma wax la parti bi. non xamoo ko. bàyyil ba ñu paree ma wax la parti bi je suis fon non. am na militaire yi sax dañoo far. Hmm. parce que dañuy parce que dañuy voté kuy voté am na koo far. Hmm. loolu c'est la vérité il faut pas ñu daw ci. amul benn journaliste bu farulal nit. parce que da ngay voté kuy voté rek da ngaa far. merci parce que di nga dem voté. mais li nga li war nag mooy. nañ ci ànd ak déontologie man fii ma toog ni ci prestige ak radio yi mo mos a jaar yi mosumaa toog fenn wane sama pare ci ci ci parti amul. et je défie qui que ce soit. Mhm. loolu nag laa lay wax ni mais nit ñi nañuy nangu di assumer seeni responsabilité gouvernement bii nag ci loolu lañ leen di xaar ñoo fi annoncé ay réformes annoncé fi ay mbir daagaan baatu askan wi ñu fal on les attend sur ça. Mhm mais nag on doit les accompagner pour que nous réussir si. nga les institutions yi ñuy wax ni xam nga wax na légui euh, attaques lolo, aussi il faut que ñun Sénégalais ñu ñu bàyyi ci xel gis nga bo nekkee opposition di wax né fe du opposition partout fu mu di doon rek bo fa nekkoon da nga naan su ma fa nekkoon dina def lii dina def mais bo demee ba tok tu vas être confronté à d'autres réalités différentes de la réalité où tu étais un état c'est un état man beaucoup na ci ñu doon wax fii toujours ñoom Ousmane Sonko président Diakha li ñu doon tok ci biti di wax buñu démé ba tok au palais nañ xam c'est autre chose la preuve. tout à fait la preuve le président Diomaye quand il était venu au palais il n'était pas encore dans la peau d'un état te souba sa lañ ko commencé transformer c'est l'État C'est l'État qui te transforme. oui C'est l'État qui te transforme. Mm-hmm. j'ai dit à quelqu'un manako ki ñuy nommé dañ ko tuddee le chef de l'État cest à qu'il y a un état qui est là li nga bëgg a def sax c'est pas forcément que tu vas le faire parce que l'état te dira lii mënoo ko def lii mënoo ko def lii ngay def faire, ngay def lii ngay def l'état te donne des des des des des consignes fermes la preuve ñun nous sommes dans une famille dañu nekk suñu nous sommes le chef de la famille mais que chef de la famille joxu la sañ-sañ bu la neex nga def ko ci biir kër gi. Mhm. te yaay borom kër gi. les contrats sociaux t'empêchent de faire ça. A plus forte raison un état. état du caaxaan. looloo tax mon président c'est te suba sa discours am discours def le 3 avril wuuteeg discours suba on aura un autre discours. même son comportement vis-à-vis de son premier ministre va changer c'est ça l'état tant que changer, wuñu loolu. effectivement y a la hiérarchie. Nous, nag Sénégalais nous devons comprendre accompagner les gens. Oh. ne pas dire que way waa ji soppeeku na. nangam ak mais il faut me sauver parce que. <laughs> Euh, <laughs> il a changé de station euh, madame Khady Gaye amoo ci. bon pour le pour ministre des sports. <laughs> non je ñëw ci. ministre des sports ministre des sports est-ce que xam nga c'est une inspectrice des sports la. faut que foofu raisonnable hein? elle a été à Dakar comme inspectrice régionale des sports. Mm-hmm. Et j'ai appris que quand elle a montré son appartenance, elle a été sanctionnée à, à Est-ce que c'est pas Diatara Oui, c'est ce que je Bon, mais, mais ce qui a importance, moi, inspectrice des sports, c'est sa fonction. Inspectrice des sports, pas le football, n'est le handball, n'est le basket. Sport, yep, mom la fa tabé won pour nga ci préjugé favorable parce que c'est son métier c'est son métier il la à Dakar partout. Mhm. il ne gérait pas le euh, euh, secteur secteur libre. la Il gérer. Mhm. a préjugé favorable ba Lenin. je mhm. gënal suis un ancien footballeur ne ministre spécificité mais elle au moins elle a embrassé tout. y a un préjugé favorable. étant donné même que c'est une femme mais ça ne veut rien dire. am na inspectrice de sport la. merci beaucoup doyen alors Isaac ñi ngi woon pratiquement ñi ngi ñi ngi ñi ngi à la fin de cette émission ndax waxtu bi ñu mu toll nii mat na sëkk alors sa dernier mot lu muy nekk ak li ñu fi jot jàngat ci yu bari quel est message. bon d' abord di rafetlu waxtaan yi nga xam ne ñu ko fi wax parce que esprit républicain laa fi laa fi gis. Mhm. parce bu fekkee dañoo dem ba ñun ñi fi toog nii yëpp ku nekk di wax. Euh, doxalin yi nga xam ne déjà commencé nañu ko gis ci ki nga xam ne moom moo euh, fay donc je pense que. président bul tax ñu. président sama plateau bi président Diomaye <laughs> Bassirou Dio Bassirou. jaxaay son excellence moo yokk la ci son excellence. <laughs> mais terewul bu doxalee leneen loolu gars yi dañuy jàkkaarloo. léegi ba ma yokkal la ci son excellence. léegi chef d'état non yaa wax léegi chef d'état <laughs> d'accord son excellence nu muy doxalee bu fekkee bu fekkee déjà mais que kenn doot benn journaliste du fi waxati na d'accord maa ngi yor ñu jàpp yóbbu.

ñu daal taxaw am taxawaay bi nga xam ne moom la ñu am par rapport ak ñoom ni nga xam ne euh, moom la ñuy doxalee beneen mbir bi nga xam ne euh, wax ngeen ko yéen ñëpp. muy <laughs> beneen mbir bi nga xam ne wax ngeen ko yéen ñëpp di ko di ko ngeen jaar ci mooy mooy attentes yi. surtout ci côté côté jeunesse bi. xam nga euh, sànq Mboup je pense wax na ko. tey jii nii on a beau demander à ce que ñu bàyyi xel emploi des jeunes. Mm-hmm. ñu bàyyi xel emploi des jeunes mais il faut que les jeunes aussi soient employables. Mm-hmm. Euh, madame, on ne peut pas te trouver un travail pour faire une bonne ait une qualification. On ne peut pas te trouver un travail pour faire qu'il y ait une qualification. profession. Mhm. On ne peut pas te faire entreprendre pour faire ait une euh, bonne notion. Donc, on ne peut pas dit, c'est qu'il faut que nous devions faire. avant on ne venus, pas. y a des gens qui booy yi ñii ñi ngi jël gaal gi parce que eh, lii gisuñu fi liggéey wala gisuñu fi seen bopp mais booy yooyu lan la ñu am lan la ñu wane d' accord am na ñi nga xam ne ñu bëri am nañ seen diplôme liggéeyuñu ce sont des chômeurs d' accord bien sûr mais ñi nga xam ne tey jii nii mënuñu laa ne diplôme bi laa mënuñu laa ne lii laa jàng ci lii lañ ma tàggat wala lii lii laa mën tey jii on peut pas parler de chômeur ci loolu maintenant ñoom politique bi nga xam ne moom la taxaw pour euh, fexé ba euh, ndaw yoy noonu gis sen bopp ci walu emploi je pense que euh, ça sera important pour nous parce que on l'attend xol li nga xamné ne carrément moom la ñu pour jëlé ci loolu ak ci yenen domaine que ça soit muy ci ci ci ci ah di ko top ci bien sûr ak ci côté pêche et buñu faté ni Macky Sall amoon na benn wax bi nga xam ne daf ko waxoon la avant moo rek ne nekkatuñ ci Sénégal bi nga xam ni dañuy dundee gerteeg dañuy dañuy li wax ci waxu gerteeg dugub wala waxum bay rek mais dañoo nekk Sénégal bi nga xam ni pétrole daf fi génn gaz daf fi génn ñu gis yeneen ressources naturelles yi nga xam ne ñu ngi ko fi nekk di exploiter donc loolu noonu yëpp ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ni on s'attend à ce que ñu am ci benn gestion bi nga xam ni askanu Sénégal premièrement population locale bi gis ci seen bopp bu baax a baax

dund bi am na Sénégal ñun instant bi suñu suñu biir bu feesee. bokk na aussi ci cinq points yi biir fees. 5 points yi effectivement muy muy vie chère bi ak ak ak jeunesse bi. et puis je pense mooy deux premiers points yi nga xam ne wax nañ ko alors ñu ngi ko ci xaar bu baax a baax en tout cas di ko euh, ñaanal vraiment. bon week-end lépp oyof si. bon week merci beaucoup <laughs> merci beaucoup Ismaïla donc damay damay tàggoo waaw da ngay tàggoo merci beaucoup jaajëfal bu baax a ba en tout cas gis naa li nga xam ne moom ngay doxalee à chaque fois monsieur Dieng bu baax a baax donc comme ni ma ko waxee. c'est <laughs> dictateur la <laughs> mais mais comme comme comme li may nekk di wax rek euh, tey souvent da nga may teg ci position bi nga xam ne du sama position. da nga daan laaj dama daan laaj. tey ñu lay laaj souvent quand je vous donne c'est pour que tu peux tu peux apporter des précisions et aussi pouvez poser des questions Fatou ngi nii. maanaam mais bon en wax tey. donc bu ma ko ji. mais bon. je pense a bul avancer. mais mais dictateur. est-ce que damay continuer. Oumar Deme dafa toog fii Oumar Deme dafa toog fii ne Mati. pourquoi <laughs> ne ko pourtant <laughs> mais vous avez le choix. de poser une question. ou de donner votre votre votre votre opinion loolu ce choix la pourtant fat fat dama koy jox. na ah dictature ni lii dictature la yow la ak joyante ya alors grand cham ma koy jaajëfal bu baax a baax en tout cas franchement taxawaay bi ñu koy rafetlu bu baax a baax monsieur Mboub aussi donc eh, je pense c'est la première fois ñu jàkkaar ñu bokk plateau donc un réel plaisir euh, euh, dégg vraiment euh, waxtaan gi ñu sekk hmm. ñun ñi nga xam ay ndaw lañ hmm. donc loolu laa ñun ñooy ndaw yi ah yéen hmm. ay ndaw yu ndaw yu jeexal ngeen <laughs> donc je pense que jàng lañ amul gën di jàng ay ndaw yu jeexal lañ tamit <laughs> <laughs> jaajëfal leen baax jaajëfal jaajëfal yi ñu doon bàyyi xel donc xëy na euh, di leen jox dig daje ci leneen. leneen ay jërëjëf Thiam ci ñëw gi nga ñëw tey fekk si ñu ci plateau bi ci bari ñu jàngal ko ci. Mm-hmm. te à chaque fois kër aussi nga ñëw def lu ñu mel ñu ngi lay jaajëfal. waaw merci beaucoup Ismaïla dafa lu concept émission bi. remercier lu baax félicité mm-hmm. parce que lii tam Thiès daf ko soxla Thiès moo ciy gagné. Mm-hmm. parce que tamit dañuy jéggaani feneen ñu am ko suñu dëkk day doon loo xam ni. dañu mën du encouragé ko remercier le PDG Pape Doumbia suñu xarit wante également rafetlu teyam ak dalam. ñu oh. ngi jàppee ci émission bi. Isaac moom macha allah heureusement da ko freiné parce que posé une question dëkk bi toj quoi <laughs> non la baax c'est un jeune très petit de de talent. avec ses revues de presse et vraiment recherche doit aussi bon ça vrai que au début ça a été très chaud. xëy parce que bëggul woon gis l'évidence mais <laughs> ci fin bi xawna na. d'accord d'accord mais bon c'est c'est ça le mooy charme démocratie. Oh. et parfois mën nañu gis-gis mais l'essentiel au finish rek nañu xam ni. Sénégal moo ñu moo ñu ñor di ko jaajëfal bu également raar na may ànd may apprécier comportement société civile parce que dama dem ba ni Sénégal amatu société civile non du far sax mais ñoom leen intérêt ak mooy élection jege ci ñu dem ci bitim réew jël xaalis bi oh. xam nga ay conflit yooyu mais moom apparemment il n'est pas dans ça donc dañ koy féliciter ñu wax ni loolu la ñu xaar ci yéen équilibré parce que tamit yéen bu ngeen jiyee rek dëkk bu tej mm-hmm. ñun on est dans la politique mais yéen war a équilibré du dëgg jotee ngeen jaar dëgg parce que gis naa ñu ma gënoon naw respecté leen ci société bi léegi bàyyi nañ doyen mm-hmm. ma koy nuyu en passant euh, kii Moulay Abdou Aziz laaj am na ma non ci am daal donc yéen góorgóorlu leen bañ a nekk ci ba ñu topp parce que ñu li ñu jigéen jigu leen mm-hmm. nekk ci fi ngeen war a nekk bañ xaar rek ba élection jege ngeen dem bitim réew jël xaalis bu bëri ñëw fay boy ay duni observation après toog voilà après pare ngeen ci loolu aussi conflit rek moo leen intéresse mm. donc yéen aussi ñi ngi am seen yaakaar ngeen relever défi bi nuyu bu baax

dañ fa solla ay plus de 300 cent ay ngir ak seen sëriñ ak ñi xam ñoo jàng fulku bi foofu loolu aussi ñu ngi ci invité ñëpp parce que xam ne ñun politique sociale la ñuy dox loolu la ñu xam ne ci lañ kon ne di di kon ne quoi ñu sant baax di gërëm jërë ngeen jëf merci beaucoup Thiam c'est pas wax naa ko léegi pour rien qu'on vous appelle le médiateur mm-hmm. alors jërëjëf Fall Fatou yow dama lay jox bu la neexee nga posé bu la neexee nga corrigé am na ku ma fi jiiñ ne maa ko tere posé non non grave ba tàggoo rek. accusation grave fallacieuse. non bàyyi ba après ngay réglé ko. non kii daa ci ay fête ba tey da nga koy comprendre fête yi moo neex yow tamit. <laughs> damaa koy souhaité bon week mu ngi noonu <laughs> moo taxee. iso rek mën indiwaat ko suba mu xam. Izo merci beaucoup jaajëfal naa la baax a baax remercier itam monsieur Mboup ak monsieur Thiam rafetlu bu baax waxtaan bi amoon na solo. Mm. ah amoon na solo waxtaan bi waxtaan la boo xam ne jàng nañ ci lu bari waaye it wax nañ ci lu bari man mii lu ci bari xaw ma ko man xaw xaw ma dara damay taw rek ñu teg ma ci plateau may jàng rek. ay faal may jàng rek. ay faal jàng rek. <laughs> nekk ci yoon di jàng rek merci beaucoup monsieur Thiam ak monsieur Mbou merci beaucoup Isaac euh, euh, jaajëfal nañu baax baax tontu Fallou <laughs> loo may xoolee xaritu monsieur Thiam yow bu ngeen paree jubóo national laay woote ah mais alhamdulilah <laughs> daal delsi na daal delsi na Casamance kii ñëwee ñu jubóo Casamance leer na bu Adja Ndogay ñëwee ñu jubóo ñu jubóo waax na dëgg Adja Ndogay moom taxaw ñëppay jubóo merci beaucoup remercier képp koo xam ne rek mu ñu doon seetaan ci télévision mbaa ñuy seetaan via YouTube no Facebook ak ñu ñu doon déglu remercier bu baax sama yaay ak sama belle-sœur ñooñu ma téye sama princesse bi jaajëfal leen bu baax a baax joo leen di daje ba après <laughs> baax na <laughs> jërëjëf jërëjëf donc loolu daaw mi ngi lay dégg bu baax a baax di la jaajëfal bu baax ci wuy si ñu wuy si tey macha allah ci xam-xam gi waaye tamit ci dal gi merci beaucoup d'avoir répondu président de merci beaucoup Izo merci merci euh, di wax ni euh, c'est d'abord comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen bi un plaisir di leen euh, retrouver fii ci Prestige parce que Euh, dafa moy sank rek li Thiam wax. Mm-hmm. donc dafa am lu muy représenté au au niveau de Thiès. Mm-hmm. Euh, vraiment c'est une euh, fierté pour ñun ñëpp. Mm-hmm. di ñaan aussi. mooy ñi nga xam ni le le suñu borom tek ci bop nguur gi yàlla kàttanal leen. ba nga xamni Euh, attentes yëpp yi nga xam ni nit ñi mooy les sénégalais am nañ ko ci ci ñoom. Mhm. ñu matale ko donc yan bi oyof lool ci ñoom. di ñaaxaat aussi ndaw ñi ñi nga xam ni ñoom ñoo leen porté au pouvoir ñu dimbali leen ci ci loolu. Mhm. parce que gis nga man je me dis ni kenn ku nekk président de la république. Mhm. waaw pour boo bëggee Sénégal bu gaaw a développé. riche. yow ci sa bopp da ngay comporter wu comme un président de la république donc bu leen ko yen rek ne ñoom ñooy état. <laughs> ñoom ñooy pas comme un dictateur. waaw ñoom ñooy gouvernement kon ñun dara mm-hmm. waruñu ci. Mm-hmm. waaw donc li ñu ci war moom moo ëpp fuuf. Mm-hmm. ñoom li leen ci li leen ci war. macha waaw di wax ni aussi donc euh, mon fii à chaque fois su ma fi ñëwee. je fais de très belles rencontres. Mm-hmm. donc di remercier monsieur Thiam. Mm-hmm. waaw euh, doyen aussi fallo, ma ngi koy remercier bu baax baax donc ci qui xam-xam bi. Mm-hmm. di wax euh, Isaac aussi merci beaucoup ak madame. donc di leen santé yéen ñëpp. di profité aussi di di di santalé ñi nga xam ni foofu laa bàyyeekoo muy au lycée technique. donc plus particulièrement la cellule. Euh, Théa di remercier aussi sama gars yi nga xamni souba suba ba léegi ñu ngi may envoyé message oh. mooy euh, variété club de Thiès nga xam ni ngi entraîné fele au niveau euh, du lycée Amarina ak Seck donc di ñaanal ñëpp jamm oh, jërëjëf jërëjëf ñu nuyu doyen Mbengue ah. waay doyen Mbengue waay absolument way demee mom sax dañ ñëw léegi ci bu ñu jeexal ci mom alors mm. parce que demain, dañ ubbi pàcc bu yaatu ci éducation. Mm. avec mm. waa COSYDEP de notre ami Cheikh Mbaw mooy ñëw nekk demee suñu invité donc demee ci pàcc bi am solo ci xaarandi parce que ñu ngi koy wax la dernière fois ban Sénégal la bëgg day tàmbali aussi ci système éducatif bi nga xam ne moom la ñuy teg waaye tamit ci nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy former parce que projet de société dafa am solo ak loo mënti def pour des politiques de développement si tu n'as pas les personnes yi koy incarner yooyu ban état d'esprit la ñu am à chaque fois damay indi Messi mais waaw ma koy euh, malay lay jaajëfal bu bu baax a baax di euh, sant sunu borom bu baax euh, di féliciter mon ami Thiam no di la di la jaajëfal ah di la jaajëfal di la di la féliciter bu baax on était dans un salon ah man concept ci salon bi kay salon la quoi dañ doon waxtaan et puis voilà te su may tëj di nga gis li may tëjee toujours à chaque fois que ma nekk chroniqueur wax wax sama xalaat Ah, mais de la féliciter la félicité bu la santé qui wuy ici euh, monsieur mboubou aussi de ko santé le féliciter. bu baax di ko félicité euh, man ce fait qu'on a un kenn ku soutenir Doumbouya mhm. parce que moi un mouvement euh, Thiès je le soutiens dans son et pourtant je ne suis pas membre de Thiès ca kanam moom mhm. mais je le soutiens dans ses actions et tout euh, c'était plus facile pour moi d'être membre de de Thiès kanam mais je n'ai ni carte là-bas bon ok benn poste mais je le soutiens. quelqu'un mhm. ki nga xam ne tamit c'est un ami je revendique sa amitié avec moom euh, c'est Ablaye Sow le président de la Ablaye Seydi Sow c'est un ami on a cheminé je le soutiens aussi dans ce qu'il fait. Mhm. mais à part ça amul keneen ku mun a wax ne am pourtant quelquefois du ma leen du ma voter voté mhm. di <laughs> wax ko donc de la sant bu baax de le de le de le gërëm

ku ci d'accordul ak ñun dañ la koy nangul dañ lay nangul nga bañ a d'accord ak ñun mais ñu ngeen am indilligence aussi ci ñun xam ne suñu xel ak suñu xalaat rek la ñu waxee waaw loolu la ñu waxee donc euh, c'est ça la démocratie Sénégal jëm kanam mu sant ñëpp gërëm ñëpp di nuyu sama sama ñaaru soxna yi parce que moo xew sama ñaaru soxna yi <laughs> soxna sama ñaari soxna yi aaw ba ca Ngaay euh, Angèle ak ñaareel bi ci Thiès ndey Faye jërëjëf ku bëgg rek nga def ne man voilà moo xew euh, suñu président ñaar la am suñu premier ministre ñaar la am moo xew focus 2 jërëjëf ñi ñu doon suivre ñi ñu doon suivre ñëpp ci 22 heures 22 heures ba tey gërëm euh, équipe technique bi ma àndaloon ñëpp gërëm aussi Oulimatou bi nga xam ni moo jàppoon ci commercial bi El Hadj Sène ak Mame Matar ak Khadija Silla ñoo nekkoon ci régie ba gërëm bu baax ak Akim ak Badra Diaw ci sonbeek ci affiche bi gërëm tamit petit ñu yor wàllu ndox mi ci kër gi Ibou Ndiaye merci beaucoup à toi merci beaucoup à waa logistique ma Ndiaye aada ak ndim nuyu bu baax aussi daaw dëgg yi ci coordination bi gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci doon jàpp Doudou Dieye tey moo féete woon ci cadrage bi merci beaucoup ñi jàpp ci émission boobu yem ma gërëm bu baax aussi suñu ay partenaires merci beaucoup à Alwar établissement Darou Minam euh, Serigne Diaby Chérifa Boutique Bazar ak Au Kangam ak Sen Agritech Sen Grand Place ak Thiès Abima alors Sidiki waaw si ban ci <laughs> non dañuy laaj rek dañuy laaj. alors Seydi Kikawa mais mun na nekk sax waaw Seydi Kikawa depuis angle sëñ Fallou euh, Fatou Fall mi ngi daan nuyu di nuyu beral nuyu bu baax tey nag euh, ki jaar ci sañse bi xam nga boo amee benn benn benn benn beau frère boo xam ni daf laa def comme frère au-delà d'être un beau frère mais sama gaay la sama nit la donc muy mu di jantal baykat moom ci baykat ak lay dox

nañ ci ànd ak suba équipe Sax 2 di leen jox dig daje suba allah ngeen jëf.